sama sëriñ nee na ma xaarim ba ma ne ko mbàkke mu ne ma oto bitig la ku ne nga yeb mm-hmm. kon bu fekkee dangay yeb ab client jox ko respect del waxtaan ak moom ba ni ma soo wàccetee sax ba gis koo xam te leer na ne boo ne ko kaa mu yóbbaale la mu yëg yóbbaale ko ngir mu ñaanal la euh, yow ci ci ci ci doxaliinu taxi bi ci dëkk bi yéen weeru de yéen a ngi dagg yéen a ngi dagg droit est-ce que gis ngeen seen bopp dëgg-dëgg euh, commune bi ci seen bopp yéen chauffeur taxi. merci waaw lañ nga ma laaj bu am solo tamit ndaxte ñun chauffeur yi weer wu dee ñu ngi dagg droit 3000 waaye man wax dëgg yàlla gisuma ci sama bopp. lu waral loolu. ndaxte euh, fi dooni dëkk bi te lii yàqu nan kenn defarul leen te loolu yaakaar naa ne ci loolu lañ ko war a defaree loolu tamit chauffeur yi ñu koy naqarlu. waaw su ma sañoon nag moom gaa yi nga xam te ne ñoo yor loolu ñu gën cee taxaw bu baax a baax ba sa wari am mbégte. loolu sëñ Xaadim tëli moom état moo ko dee defar waa bu dee toj-toj yooyu moom mën na nag di sëkk ak wala mu taamu manq ak affaire yooyu noonu mais tali yuy toj état moo ci responsabilité. Hmm. am na nag lu mu war a am loo ak maire boo xam ne dina ko jàppale waaye loolu état mu mbokk yi ñu bëgg ànd ak ñun ci émission jotaayu chauffeur fii ci Baol Média 88 ngay def 628 19 05 di dellusi di nuyuwaat euh, waa fédération Pape Ndong di ci nuyu ku mel ni Moussa Pouy sëñ Modou Sall Abdoulaye Ndiaye Serigne Matar jaw moom nga xam ne moom moo war a la waroon a àndal ci émission bi tam ne daa am ko wàññiku ñu koy masaw bu baax baax ak ahlu fédération bi dañuy bañ lim tur di bàyyi kenn mais ku bokk ci fédération bi ak ku ci bokkut te yëngu ci transport rek ñun ñoo ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatulah di la jaajëfal di nuyu sëñ boobu njaay ci di ma di ma wax ni damay diglu chaque àllarba sa émission. Ah, gaarasu sëñ Mor fële ca Touba Diarème ñu ngi leen di kontaanee ak rond point alam gu ñoom ñëpp bawuñu kenn sëñ laay mu mel daam question boo bëgg a posé xaadim waaw xanaa sëñ xaadim ñu ñu dina laaj eh, maam comportement safoor ci doxalin mu mel ni taximaan yi comme ni ma koy waxee ñoom jàpp nañu ni mbàkke Tuubaa yi dañoo soxor jàpp nañu ni tata bi dafa soxor ñoo dàq siif te duñ maye. dawalin yooyu sama question bi laaj léegi dañ cee daw dama ni la yéen bu ngeen yabee da ngeen jàpp ni yeen a gën a circulation bu ndawee bu ndaw rek bu amee ngeen bëgg a teggi def yi te bu ngeen yebul du ngeen daw lu waral loolu laa bëgg xam. mais xaarim kii visé na taximaan yi de moom chauffeur moom mu topp xe taximaan taximaan rek. taximaan la ñuy wite. waaw taximaan la ñuy wite mais chauffeur. chauffeur moom laay laaj. bisimilah sëñ xaarim répondre sa waaw loolu boo gisee chauffeur yi tataa yi danoo iñaane chauffeur yi Mbàkke Tuubaa yi chauffeur danoo iñaane taximaan yi ba nga xamante ne ñoom ñëpp. loolu doy na waar di saa bu dajee rek. dangay gis ñuy xeexante te kenn du ci nangoo may sa morom boo gisee dawal boobu loolu boo ko waral te ñu ñëpp benn la ndax sëfoor sëfoor la rek. jërëjëf loolu est-ce que loolu c'est c'est normal maanaam ay iñaanante ak i soxorante xaadim est-ce que loolu tax na ñu jëm kanam ñun est-ce que loolu da tax ñu avancé. loolu taxut ñu avancé ndax ñun ñëpp ñoo bokk lu bëgg dañoo war maanaam ñun ñëpp ñu boole suñu bopp doon benn xam ne ñun ay sëfoor la te ku si yàqal sa morom tamit. danga xam ne sa mbokkum safar rek nga yàqal te ay safar yi ñëw di la ñaan kon loolu waral koo xoolaat bu baax a baax xool la ñuy dawal bu baax a baax di mayante di yaatalante loolu nag li ko waral mooy ñàkk yaatal suñu xol yi mais suñ yaataloon suñu xol yi rek benn loolu lépp du am yëg nga ni dëkk bi ñaari fédération taxi ci am ban nga ci bokk hmm? ñaari fédération yi ci dëkk bi ci ban fédération nga bokk fédération taxi maanaam kuréel yi jiital taxi yi yow gën kuréel nga ci bokk ku paab sekk bi wala ku paab nu ndong bi waaw maa ngi bokk kuréelu paam ndong waaw léegi <clears throat> ñu waxtaan rek carrément ñaari xàjjil yooyu ci benn dëkk ñaari kuréel yooyu est-ce que luy defar transport taxi la wala lu ko avance loola. waaw ñaari xàjjil yooyu de moom ñu ñu boole woon nekk benn moom ci lay gën a baaxee moom waaw buñ ñu boole woon nekk benn daal bokkul bëgg ci la xalaat yi gën a yokk. yow est-ce que yaa ngi gis bu baax a baax sa bopp ci ci kii bi. ci fee ci kuréel googu nga bokk muy fédération bi PAM doon jiite est-ce que yow yaa ngi ci gis sa bopp en tant que chauffeur taxi. waaw ñu ngi ci gis suñu bopp waaw bu baax a baax a baax. gis gu mel na ci yenn activité nga mën a wax ne lii gis na ci sa bopp ci ci fédération boobu nga bokk ñu bañ a naxante nag. waaw loolu de moom. Bamba est-ce que nga yaakaar ne nan lañu war a mën a def ba boole ñaari fédération yi ñu doon benn tax ñu am doole ba yëkkateendoo di tegandoo ñaari fédération pour ñu am doole nan lañu war a mën a def ak fan lañu war a mën a jaar ba boole leen ñu doon benn. waaw loolu moom waxtaan rek ndax réeroo amul ñàkk waxtaan ñoo am. Hmm. su dajalee suñu bopp. Hmm. waxtaan ci mën na noo dégg suñu dégg loolu mën a am. Hmm. parce mbir moom. balaa dara am rek in faut ñu waxtaane ko hmm. parce que dara jikko-jikko moom sotti waaye maanaam suñ ko waxtaanee rek incha allah hmm, parce que loolu lépp mën naa nekk hmm. mais ci kaw ñu waxtaane ko réeru amul ñàkk waxtaan moo am ci loolu laay def si euh, laay doyen laay mbokkuñ ci ligne bi salaamaaleykum salaamaaleykum aleykum salaam Adama Kane secrétaire général regroupement des chauffeurs de taxi ancien banque arrêt président Idrissa chargé de communication fédération taxi PAM donc jiite Touba. Ah. moom laay. posé question boobu fédération bi <laughs> posé ko question ngi lay nuyu. maa leen nuyu wax dëgg yàlla. macha allah di am di tàbbi ci jotaay bi. alhamdulilah ndax wax dëgg yàlla ñu ngi félicité tamit di encouragé seen directeur boobu. Modou Mbacke Diop. Oh, ñaanal leen ko bu baax kay. jeune la bu am ambition ndax lu toll ni transport nga jëlale ko cër boo xam ni cër bu yaatu la ndax deux heures yoo xam ni da nga ni waa transport kaa leen wax seen soxla wax seen i jafe-jafe wax li leen neex wax li leen naqari amul fenn fu dul ci rajo boobu. merci beaucoup kon ñu koy félicité ñun waa transport di ko ci sant bu baax a baax. merci beaucoup en tant que en tant que communication fédération taxi maa ngi koy félicité ci turu PAM Ndong. Mhm. di ko di ko di ko di ko ñaanal suñu borom yokk bu baax a baax. moom laa tuddee émission bi tey. waaw sa ñaara. Mbacké seen seen waa ji kat seen président bi su émission bi heure bi ñu ko ci woowee rek daa mel ni day day daw lu waral lool. non non daw sax warul dawul ndax wax dëgg yàlla ñun suñu président bi nga xam ni moo jiite fédération taxi jàmbaar la parce que borom Pastef la mi ngi góorgóorlu di xeexal taxi fu mu toll. waaye nag dafa fekk ni dafa nekk doomu boo xam ne dafa chargé dafa dafa dafa dafa chargé parce que koo xam ne yaa ngi jiite 43 garage ak ak ak nekk sa garage boole ci nekk fa jëwriñ. di di doxal taxi jamono ju ne ñu lay woo ay contravention fii di la woo ay ay fii ay fii ko faaw nga xat loolu moo waral waaye am na yéene ñëw te incha allah dina ñëw. dama dañoo amoon benn gan gu bokk ci yéen. waaw suñu xarit maa ngi koy nuyu di ko siyaare dama ko ngi koy siyaare di ko nuyu kooku seen fédération la bokk ku bokkut ak seen xaadim. ku bokkul seen xaadim dama am euh, koo lañuy def daf ni. bokk na ci fédération Pape Seck mu mu gis ne day politique mu baax. mu bokk ci bu Pape Ndong mi gis ne Pape Ndong moom puusul paasut te yow lii nga wax nii nii mi ngi koy doxal man loolu jaaxal ma. te moom nee nañ puusul paasut. mi ngi koy layal de xaw ma xam nga àdduna moom xalaat yi ak xalaat yi ak gis-gis yi day wutoo day wuutee jamono ju ne. Ah. waaye Pape Pape Ndong moom koo xam-xam ni lu mu mën ak li mu mënul mi ngi koy def ci secteur taxi. te ah. incha allahu rabbi dina xeexal taxi ba lépp lépp lu xam ni ay jafe-jafe la ak loo xam ni taxi warul mel noonu. dina ci fexe indi ci ay saafara incha allah mu neex a yàlla. yow yow xam naa émission moo ñu moo ñu moo ñuy doy ci yow émission xam naa ni <laughs> ginnaaw yow yaa yor communication bi ñu gën cee leeral ndax daa mel ni ñaar fédération ci dëkk bi yow nan nga ko gisee en tant que euh, citoyen chauffeur. waaw ñaari fédération yi ni ma jàpp jàpp naa ku mën naa ne ci ruq di doxal du wàññi dara xanaa li may li may li may li may li nga xam ne moom laay wax rek ni bo war na noo ma suñu war naa mën a dogal ku ci ne ñu sollicité sa moroom ñu ànd liggéey te xam naa incha allah loolu dina am. te loolu nga jàpp ne sëñ bi est que du communication bi nga yor tax ngay kii rek. non non demeewul noonu sax. Ah. damaa xam ni yaakaar naa. Hmm. secteur transport ku ci ne mën naa nekk fa nga nekk. Hmm. teewul ñu ñu ñu ànd liggéey ndax ñoo bokk bëgg-bëgg. ñoo bokk gis-gis. voilà ku ci ne fexe lu moderniser taxi ci ngay dox ci ngay wax kon yaakaar naa ñooñu mën nañoo def benn commission boo xam ni. da dañuy tànn ci fédération bi tànn ci fédération bi ñu ànd liggéey teg loolu du ci wàññi dara teewul ku ne la nga bëgg a dox ci sa fédération di nga ko dox bu neexee yàlla. waa waa aara. waaw ñu bokki bëgg-bëgg jàpp naa ne buñ boole woon ci la ñëpp doole de. waaw loolu wér na mais nag tamit dama la dama laa wax ne la. waaw. boole gi lu mën a nekk la parce que mën nañu koo def ci commission boo xam ni dañ dañ dañ euh, bureau bureau bureau fédération bu bëri dana am ñu fa ñëw. kooku rëj na cant ak la. Adama Kane secrétaire général bu Garaas banque islamique Ariba Edika en même temps chargé communication fédération PAM donc ñu lay gërëm du baax di la sant. kooku sëñ Mourou war naa ñëw ci plateau bi. incha allah fédération seen fédération PAM donc boobu. Hmm. Euh, daa bëri ay ay ay ay ay ay wax yu ma ci dégg. wax yu mel na sëñ laay. waaw kay maa ngi ñëw ndax ku mel ne sëñ Moussa. ma yaakaar naa hôpitalu Ndiaye ko jiiteeti. sëñ sëñ Modou Ndiaye la xaw ma sëñ Modou. sëñ Modou Sall Sall moo nekk hôpitalu Ndiaye. waaw xaw ñu sëñ Modou rek te bañ yegg ci sant wi. sant wi <laughs> waaw moom jàmbaar la lool. di ko gërëm mu baax a baax. day borom xam-xam. Hmm, ndax li mu wax ci li mu wax ci ci ci ci ci euh, PAM Ndong muy bokk na ci fédération bi mais daa gisul ni puusul paasul ndax hmm. ba tey taxaguñ bureau normal buy doxal. Hmm. amaguñ ay kër yu normal yuy doxal. tàng ne yow yaa kii ñëw wax ni am na lu mu def maanaam jot na daal mu leeral tey dégg naa ñu ni moom Pape Seck pare nañ pour doxal xam nga safoor si ñoom ñoo war a am fulla ci seen bopp duma taay di ko wax ñi ngi félicité bu baax nag monsieur le laat Abdoulaye Ka li waral loolu mooy gis nañu jamono jii. ñu génn loo koy félicité ci suñu plateau bi lu mu def. ba nga koy félicité deful dara lu dul ma gis mu boole njabootu trasport comme. comme seen. nga euh, njëkk bët. waaw fan seen réunion bi ñu passé ci mairie bi. waaw mboolem ko yore transport ci dëkk bi. muy Tata muy Mbacke Touba muy euh, dagg yi muy mboolem secteur transport ci dëkk bi. Hmm. def na ak yow réunion. loolu. waaw ngi ko ciy félicité. waaw loolu am na yu ma ci fekkee. di wax ni. Hmm. loolu loolu ñu woote. Hmm. nañ ko doxal. doxal gi nag mooy ñu wut ay secteurs yu normal di ko doxal li jiitu nag ci kaw. ñu fexe ba am ay yoon yu mën a dem dëkk bi sëñ Mourou yoon yi yoon yi dëkk wutul benn yoon bu baax. jërëjëf laay loolu xam na mbokki auditeurs kii dégg nañ la. waaw euh, autorités yi dégg nañ dañ ci bàyyi xel. mbokk ku bëgg ànd ak ñun ci jotay émission jotaay Chauffeur 88 628 19 05 ci rajo Baol Média xàll bi jëm Touba ak Mbacké ci ko lu mel noonu li ñu wax ne ci chauffeur chauffeur laay dis tey suba rek lu mel noonu daf ma arrivé. dama ñëw monument kër suñ Koso ma di leen nuyu di leen siyaar di ñaanal kilifa gi yàlla yàggal ko fi waa taximaan yooyu ku ci mel ni Pa Faye wala wala Tawa Baye Tawa Abdou Seck ñoom ñëpp console la nuyu naa ñëpp Baye Ndongo Rant ba laat ñoom ñëpp bawuñ kenn dama ñëw taxaw foofu di jël oto fekk na dañuy denc suñ kilifa googu ñu ñuy yëgee baaxee may waaj a oto pour dem jumaa ji ñëw taxaw mu ñëw ab bolo dagaa la ñëw 307 taxal ko ci kaw tali bi bu fekkee taxi yaa ngi rang mu taxaw ci kaw tali bi ma ko da ngaa paan mu ne ma déedéet ma ko lu tax nga taxaw nii mu ne bi may taxaw oto yaa ngi taxaw ci digg tali bi wàcc fi fee di nuyoo lii pour lan la mu ne bi may taxaw fii oto fi ne ma ne ko bu fekkoon ne alkaati fi ne bu fi téeméeri oto nekkee da nga puus ba ca àll ba mën a droite taxaw mu ne ma yow doo idika idika téegu la fi ma ne ko waaye yow lu fi indi idika man maay wax ak yow idika nekku fi yow man permis nga yor may wo ma yor di wax ak yow permis en tant que chauffeur ñëpp dañ leen di boole sol ci benn biir lii war nga ko dawale sa bopp jombale ko sa bopp c'est pas normal ngay ñëw di taxawal sa oto bi ci kaw tali bi c'est pas normal da nga war a droite nee mais ñu taxaw ci kaw tali bi ma lay wax nga naan ma idika lu fi indi idika ñu bari ñu ngi pëccoxoo waale wala profité waale euh, jeunesse bi jeune chauffeur yi nga xamante ni ñoo dawal lu mel ni ay wargaynde comme ça classe googu di ko di ko di ko di ko jàppal ay m di ko wutal ay ay noon moom Idi te dafa bëgg lu transport bi modernisé wu jaar dans les normes comme moom mooy président de tous les regroupements de chauffeurs ñu dénk ko en tant que gare routière bu bu bu Touba ak Mbacké loolu ñuy wax ay wargaynde wala Allo Dakar euh, nga xam ne réglementé wul autorisé wuñ la ko. te buñ la ko autorisé woon sax yow oto bi nga def ko transport yow amoo transport pour man a transporter ay dëkk ak dëkk ñuy dem di yóbbu client ñu si bëri poids lourd lañ yor ak poids soo compté woon 100 chauffeur 95 pour cent yëpp yoruñu transport ay poids léger poids lourd lañ yor ba pare nga yoraat oto boo xamante ni irrégulièrement amul droit transporter. nga transport rombat na jumaay sëñ Tuubaa ji nga ñëw ba ci ginnaaw jumaa ji maa leen déglu fan yi seen benn interview ñu ne dañoo dem siyaare ji ba ñëw xaw ma dañoo leen a bundu xadaal affaire yi idi que jotewul ak ñoom dara daa doon président de la gare routière bu da bu bu Tuubaa Mbàkke seen yi moromi wàjjur wala seen ay nawle ñoo nekk ci biir garas bi di rang te buñ rangee dañoo war a yab buñ yebee dañoo war a yóbbu yabaat indi nga xam ne dañ dañ la da ngay ñëw rang fa lu mat 5 jours wala 6 kii xëy Touba dem ñëw fekkaat la fi yebaat demaat loolu est-ce que neex na tàngat rang yor ay kii di ko fay normal ba pare bu ñu la laalee nga ne lu tax ñu laal ma dañ maa war a autorisé dañ maa war a kii dañuy daan suñu doole nangam sangam te tegu ko ci yoon tegu ko ci dëgg ma ne. idi mi ñu wutalu noonu idi mi ñu noonoon du seen morom kilifa la te wut seexul ak ñoom ay dara lu bëgg transport jag su ngeen bëggee mu jag da ngeen koy jaar fi ngeen ko war a jaar. teg ci yoon teg ci dëgg te bañ koo jalgati lii mooy dëgg te mooy yoon. xam nga dëkk bi li ëpp ci li ko yàq mooy fii lay suturloo wala fii lay wutee lu mu këram. c'est problème. ndax doomu aadama bu nekk buy suturlu war na ko jaar ci ci ci réglement bu wóor daf ko foo war waaye mën naa suturluwu xoolaatoo keneen loolu moo yàq dëkk bi. ñoom ci seen communication dégg naa ko ni Sëñ taxaa nee na. baat de suñu ko bokk ginnaaw xam nañ loolu mm-hmm. war nañoo xam ni baat de suñu ko bokk tekki lañ ko seen bopp li waral loolu mooy ñoom amuñu droit def transport en commun kon ñoom dañuy sàcc mu ni ñoom dañoo war woo police mu jël si leen ab sàcc doo ko jàpp di woo police déedéet da nga koy jàpp yóbbu police ba mm-hmm. ab sàcc doo ko doo ko gis naa da ngay wooyu police balaa ñoom mu daw di da ngay jàpp pëlis sàcc ba poñee ba mu dëgër nga ànd ak moom jille dem pëlis soo àggee pëlis daf li ci yoonam. Hmm. nañu xam ni ak ku mënti doon ci trasport ak ku mënti doon ci trasport nañuy bañ di xëcc suñu intérêt bopp. du du gaaw jag de ku ci nekk noonu ngay def noo mën a suule sa morom rek ba ba du jóg nga yëkkati ko noonu ngay fex xam nga su ma waxee rek ñu ñu ñu jàpp ni maanaam politique laay waxee mais waxuma politique. ci cas bi ma nekkee. fi laay waxee ci lan laa ne ci transport ma gis ni état def ni woon daf koy développé waaye bi mu xamee ba xam recettes yi nekk ci transport daf koo téyel boppam te wallaay ku ci caax ku ci fi ndóol ni regroupement bu ci ñàkk fayda yow moom sab garage dootul dox te commencé na am ci dëkk yi ay Dakar dem di dikkoo Sénégal dem dikko yooyu yépp lu baax la waaye daa am ñu yore transport dañ leen ko jox ñu di ko doxal dëgg la jërëjëf mu mel ni sëñ Xaadim en tant que taximan damay dégg fan yee réunion boo xam ne maire oote woon na ko hmm. ne dañoo bëgg a moderniser taxi mi moderniser taxi mi nag boo ko déggee xëy na mën naa doon bañ a jële fi oto yi indi yeneen waaye danañ renforcer lu mel ni oto yooyu ba ca topp ba ci topp mooy dañoo bëgg def lu mel ni ay làmp yoo xam ne ci fédération yi lañ koy jaar te fédération yi ay regroupement la boot comme ñu ne te loolu man jàpp naa ne lu gën la ci li ma xalaat ndax dina tax li ma la wax fii léegi sàcc man du mën a dugg doo sàcc xari jàmbur ñu lay wëri mm-hmm. doo dorogewu ñu naan taximaan ba ñooñu ñëpp dafay deñ te dëkk suñ Tuubaa lañ nekk ñu ñun yëpp dañoo daw waalise bi kon nag li sëñ bi bëgg ci dëkkam bi ñun war nañ ko cee mën a jàppale ñun en tant que taximan ma ma ma defe ne yéen taximan am ngeen ci part de responsabilité bu ndax xam ngeen ku jub ak jub tey yow jàng am na loo ci xam tey war nañ ko moytu ñun ma dégg ñu ne làmp yooyu comme dañ ne gaar su mët lay mët lay kat dañ koy jox cinquante làmp ci turu gaarazam moom am na ñu ma adré woon ñu ñëpp enregistré woon naa seen ay numéro permis carte d'identité téléphone ainsi suite su ko defee su ma la dee jaay yow xaadim làmp numéro un laa a jaay boo demee fee sàcc fa xari jàmbur bu ñu jàppee làmp làmp bi doo ko teggi ndax làmp bi dañ lay defal ne la soo ko teggee bu alkaati comme droit su alkaati dajee yow sañ na laa jàpp fourrière la wala mu attesté la kon laab bi wër te ko tout le temps daa war a tege ci kaw ñu xam la na yow taximaan nga bu ko defee yow bu dee numéro un nga dem fee taxaw fa yëpp ay xar ña koñ ba wala ña fay romb wala sa moroomu oto dana xam ne numéro un làmp taxi bii moo fi jël xar yii. soo ko mën a yóbbu bu ëllëgee ku fa ñëw di laaj ay xar dañ ne lampe numéro taxi numéro un lampe ba moo fi jëlee xar yii. Mm-hmm. boo ko defee dañuy interpeller le maire. ñu mu dénk commission transport ci biir maire bi ñoom danañ xool numéro yi takk la ñuy def ngir wàcc seen machine daan ne numéro 1 garage fédération PAM dong lañ ko jaayoon garage su Modou Lay la ko jaayoon garage su Modou Lay numéro 1 bi ban oto la ak ban chauffeur la andil ñu ko moo fi yebe xar yi mu wax ñu xar yi fu mu ko wàjjee ak fu mu ko yebe woon est-ce que yaakaar nga ne loolu dana mën a jàll te dana doon li gën waaw jërëjëf sëñ Modou laaj nga laaj bu am solo solo mu mel ni loolu nga wax noonu lu am solo la képp ku ko dégg tamit war nga xam ne lii lu am solo la ndaxte liggéey moom boo ci nekkee da ngaa war a am ak ak jub da war a jub kocc mooy tax ñëpp doon parce que taxi ñëpp ciy yéeg làmp yooyu nga wax bu amee ndaxte am na safar yoo xamante ni dañuy taxi ba pare lànk ni taxi wun duñ dugg duñ daggi droit du def dara ten seen oto ba mu ñuul léegi ni dañuy taxi léegi nag ñooñu am na si ñoo xamante ne jub nan am na ñoo xamante ne jubuñu. Mm-hmm. waaye bu yàlla dogalee ñoo am ay làmp yoo xamante ni moom day am ay numéro nga xamante ni maanaam loo def rek incha allah rabbi da ngay feeñ. Mm-hmm. parce que dëkk bii dëkk sëñ Touba la. ak war a jub ñu ñëpp ku fi nekk danga war a jub dëkkub xéwal la. du dëkk boo xamante ni lu la neex def waaw. làmp yooyu nga wax nag làmp yi am solo la bu ñu ko defee rek dëkk bi moom incha allahu dina am ak soppi képp ku ku jub dinañ ko xam ku dëng dinañ ko xam mm-hmm. jërëjëf loolu leer si xam mu mel ni yow dangaa mel ni dangaa nekk ci ab garage. Mm-hmm. ku wax taxi taxi bay wër la wala yow dangaa bokk ci garage di fa rang wala. waaw man nag damaa bokk ci ab garage. garage banque islamique ci njiital Sëñ Mudu mi nga xamante ne moom ma dalal. tey jii ci garage laa bokk. bi ma taxee rek daanaka damaa ñëw rek bokk def tout droit rek ñëw bokk damaa dawal Mbàkke Tuubaa bàyyi dawal Mbàkke baa ñëw ci taxi yi. ba ma dalee dawal taxi ba léegi ne ci taxi laa dekk ñoo bokk ci garage heure su ma xëyee rek damay def tout du droit dem ci garage ba nga xam te ne boo def ki naa jël ma sax boo fàttee sa bagage soo ñëwee ca garage ba ne oto bi même boo xamul sama tur hmm. ne garage banque islam laa jëlee woon taxi dama cee fàtte eh, ab lii ñun la oto ba nu mel nga wax ba incha allah rabbi boo ñëwee di nga ko gis merci beaucoup jërëjëf ko loolu dama ko fàtte woon waaye lu am solo nga wax foofu ndax lu mel noonu arrivé na ma moo tax euh, dugg ci garage dara da koo dàqul wala dara da koo gënut pour en boo fàtte sa ay bagage lu walla lu demee noonu ndax man toog naa sama kër yàlla xam na ko bi ma toogee sama kër ñu woo ma téléphone ne ma eh, dañ ma xaw ma damaa jël sa numéro xaw dañ maa jox sa numéro damaa jëloon taxi ci ta garage ci suba. ma ne ko taxi bu mel na la mu ne mu ab 205 bu weex man ne dawal sama xel daan ne 205 bu weex arrêt ba da ñaara ko fa am. daat na ko soro 269 oto Cheikh Diop mu ne booy bu gàtt ma ne ko wax Cheikh Diop la xaar ma woo ko automatiquement damaa jël sama téléphone woo ko baat bagage ba ma fàtte woon mu ne waaw moom la mi ngi fi fàtte ay bagage ndax jaaru nañ ci pharmacie bi jël fa nangam moom la kon mu ngi nii kon maa ngi dem arrêt ba su ñëwee fekk ko fa nga xam ne su jógatoon ñëw ci gaara jëlee fi oto bu doon daa arrêté du xam fu mu koy war a ji te bagage boobu ñoral na ko soxal na ko yow nan nga def ba bokk ci garage bi ak lu la ca boole ak doxalinu garage bi nan ngeen koy doxalee waaw loolu de moom dana la si tontu tontu bu yomb parce que bi yàlla dogalee ma jug di taxi ci banque boobu laa ñëw rek daal di fi samp sama gaar sama sampal ko fa fekk fa sama gars yi. Hmm. ñu fay taxawal seeni oto. booba sax dooru gutub gaaras hmm. ma ñëw di fa taxaw ñuy toppalante ñu ñu ñu nga xam te ne ku seet ab kinaa rek. Hmm. da daw di wax ak moom. ba mu yàgg ci leen waxtaan suñu biir ni gars yi li ñuy def nii. rafetut na leen di toppalante ku yab sa moroom yab. ci la yàlla dogal yàlla indi la fa nga ñëw sa xel mm, nàcc ngeen def seen ngeen waxtaan seen biir ba sanc gaaras bi ci laa bokk ci gaaras bi waaw waaye waaw fi xaarim comme gaaras bi nga bokk yow est-ce que gis nga ni moom seen njiit li mi ngi doxal normal wala wala jot na nag ñu tegg ko tegaat fi keneen ku ko gën ku ko gën doxal gisoo lu mel noonu yow waaw man de moom wax dëgg yàlla suma ma sañoon ñu bàyyi ko fi moom. ndax lan. ndaxte yàlla dogal na ni maanaam mënuma koo waxal loo gis gisuma muy def loo xamante ni mën naa ko fee naan naan nan ko changé jël keneen. ya daal gis nga ni mi ngi doxal bu baax a baax. waaw mi ngi doxal bu baax baax ku nekku ci dëgg nan la woo ba nga ñëw ni la nekkoo ci dëgg. yow am nga carte membre wala ñoom garage bi comme pëcc xool amul carte membre yooyu. waaw carte membre nag bi ñu koy dagg daa fekkoon ma nekk ci ay jafe-jafe. waaye maa ngi ci. yow daal agrément doo nga am. kii. Andra Andra nga waaw. Ah, da ngay wut ki ah, kii carte ngir ëllëg buñ koy folle <laughs> nga nga war ko hôtel eh, ah, foofu noonu eh, maam yéen taximaan yi. Eh, lan mooy seen problème bu màggal gi ñëwee lu day ni màggal seen seen seen tarif yi ni ngeen koy yokkee maam seen paas yi maam yéen daal du ngeen fayoo ko 2000 du ngeen fayoo ko 1000 francs 5000 jëm kaw salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw na ngeen def. sant sëñ Tuubaa bu wér. ñu sant yàlla bu baax kay. sëñ Mbacke Seye. actuellement Tuubaa Mbusoobe. sëñ Mbacke am na si xare. banque islamique Baye Idika ñoo lay jaar. ñoo leen di ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay. ñu la koy delloo gan gaa ngi lay dégg. sëñ Xaadim Mbay Mbusoobe. jërëjëf sëñ sëriñ ñu ngi ziar bu baax ñu ngi koy ziar bu baax. ñu lay delloo ziar bu baax a baax sëñ sëriñ Touba jotaay bi. alhamdulilah. maanaam di rafetlu jotaay bu baax a baax. dëgg la kay alhamdulilah ndax yàlla. ndax yéen a ngi waxtaanee lu mat a waxtaanee nag. Hmm. muy wàllum Taksim Touba fi mu toll. Hmm. war naa mën a réglementé réglementé boo xam ne nii. Mhm. kenn ko ci war nga ci man di gis sa bopp te kenn lu tuumal kenn. Mhm, mhm, waaye fi ni nii may waxee yow ci dëkk bi nii taximaan yi moom daanaka lu waay wax oto bu yabe xar ñu ne taximaan yi. dëgg la de ak wér. te eh, mbir mi ñi ras démb ak ñi ñi ñi ñi gàmm dañoo bokkut. bokkuñu de. bërki démb. maa ci jiitlante oto boo xam ne nii. Mhm. amul plaque avant amul plaque arrière ab 306. daa di teg lamp taxi am. waaw. ah. daa ma daa di teg lamp taxi am ne taxi la. tegutub lamp waaye day mbuboo taxi. waaw. ab oto boo ko jëlee tent ko ba mu ñuul. waaw. amoo plaque avant amoo plaque arrière. waaw. ñetti nit nekk ca biir. ngeen ni kàmb kàmbal ay bëy loolu jëfinu sàcc la sàcc la du jëfinu sàcc sàcc la ndaxte li tax ma xam ne sàcc la mooy mm. damaa jillante ak moom génne sama koñ waaw jillante ak moom génne ci mbedd mu mag mi mbeddum kër baay idika moomu bi trente daaru bi waaw fa lañ ma ñëw fel siñaal dugg ci mbedd mu ndaw mi mu fel mu fel moomu njëkk dañoo felandoo signal ma bàyyi ko mu dem ñu ñëw ci bëyi mu escale man tam ma topp ci gannaaw am ndànk rek. waaw. mais bi ma xalaatee ne kii jubut ma bàyyi ko xel moom dem mu xam ne maa ngi ci gannaaw mu mu avancé ma dem ba ca raay ba ne client yi kii ma kii ma jilaan di oto bi jubut ñu ne ma lu tax nga wax loolu man leen kii jubut. client bi wàcc jàdd ci orange money bi ma ne keneen ki toogal ñu dem ma wan la ne kii jubut. biñ demee ba ci kanam mu toppaat beneen mbedd demaat ba ci ba bay tolloog 30 euh, bi jëm bu mu jàddeewaat noonu utiwaat 30 daaru salaam ba ma toppaat ci gannaawam mbedd bi mu njëkk a jot a gauche ca la jàddee man dama continuer ba ca 30 daaru salaam ba. waaw. waat ko mbedd bañ duggee woon. waaw. foofa fa laa duggee waat jaar si waat ci bëy yi tasewaat ak moom ci bay yi kon kooku xam nga ne kon sàcc la. sàcc la sàcc man la. ah sàcc bu mag sax du bu ndaw. na dañoo war a ràññee nag taximaan ak sàcc yi. jërëjëf. fii la lépp lee rek rajo bi ñëpp doon bu ñëpp doon def ne képp koo gis mu yor oto jubadi nga topp ko def ko def ko mel ne police ci kawam mhm. kon càcc gi dana jeex fii nañ na nañ nañ nañ loolu taximaan yi ñoo ci war a jël seen i matukaay sëñ bi loolu lu ma la ci dolli mooy waaw li sëñ Mountakha waxoon rek maanaam dëkk bi benn baat la waaye autorités yi nag policiers yi ak gendarmerie am na fi foo xam ne yéen ñoom jotuñu fa ñun ñii nga xam ne ñoo taximaan yi Mm-hmm. buñ ci xaar ñu ñuy soñ ci liggéeyal sëñ bi liggéey luñu police mbaa gendarmerie sëñ bi la ñuy liggéey kon ça fait normal boo gisee loo xam ne nii bokk si tam lu mel noonu comme li nga def ñu ñu ñu jàpp ci bu baax a baax te xam ne sa bopp nga ko defal kon sëriñ Seye ñu ngi lay gërëmaat bu baax ci loolu nga def. di ko waaye sëñ bi na li la jaajëfal. di ko jaajëfal ci doxalin woowu mu doxalin. am na solo bu dul moom rek. bërëm ba yooyu mu jël bëy jàmbur bërëm ba yooyu day ñàkk bëyam. voilà mu mel ni li ma doon wax noonu rek moo waat ndax tey. doo xàmmee kii taxi ak ki saaj parce que bërki dem bi ñuy sampee Moralas mbokkoon ci ligne bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. mbokk taalibe ah. Adama Kane moo ñëwaat Adama général gare routière banque islamique Araba Idika maa lay nuyu di la siyaar mbokk auditeurs auditrices ñëpp lay bàyyi xel Xaadim ñu dalal. Sëriñ Xaadim ah. waaw. di ko félicité di ko wax ni noonu la rek ah àdduna moom ku ci ne da ngay waaye nag maa wax ci ma wax ci secteur taxi tuuti rek. bisimilah li may wax nag waxuma ko en tant que de communication waxuma ko en tant nekk ci gàllankoor en tant que personne nga koy wax en tant en tant que Adama Kane. auditeur ah. damay wax en tant que. auditeur sama xalaat bopp. merci beaucoup dama jàpp ni. ñun secteur bi kenn du ñëw di koy defaral ñun ñoo koy defaral suñu bopp te liñ liñ insécurité bi nga xam ni sëriñ bi da xeex. waaw ku waxal yàlla xam ni taxi mi ngi ci biir. wax dëgg yàlla ndax. kuy ku ju ku jugee Gambie taxi ku jugee allo. bisimilah yor la ñu déglu allo. bisimilah yor la ñu déglu aada. allo. ñu ngi lay déglu baax ñu lay dégg de. waaw ma ne ku jugee Njaareem taxi ku jugee Taïf taxi ku jugee Diourbel taxi am na ñoo xam ni Njaareem la ñuy jugee am na ñoo xam ni Taïf la ñuy am na Xuru Mbàkke ak Xuru Mbàkke ak gis naa ko. waaw léegi nag loolu ñàkk a bu wu taxi moo waral loolu. dëgg la de. kon yaakaar naa ñun ñi nga xam ne ñooy acteurs yi kenn duñu ko xeexal ñun ñooy fexe takku booloo doon benn pour xeex ko. Mm-hmm. beneen beneen bi ci topp mooy tamit recette bi ñu war a am dëgg-dëgg. su mm-hmm. organisation amul ñun duñ ko am. Mm-hmm. lu waral loolu. ndax li waral loolu mooy pëccëxoo bi parce que taulier bi bu wàccee bu dëgëree mu dem taxi yi. <laughs> mécanicien bu wàccee bu dëgëree mu dem taxi yi. te kooku noonu mënoo concurrence ak moom. dëgg doo ko fay mu yóbbu bu ñu waree demee. 2000 bu ñu ko fayee 1000 francs mu dem kooku mënoo concurrence ak moom. dëgg la de. am na moo moodu yoo xam ne sax bu ñu jógee Italie dañuy nee nañ ci taxi yi la ñuy entraîné kooku kooku mënoo concurrence ak moom mooy léegi nag ñun ñi nga xam ne dañoo jënd suñu oto teg ko ci tali bi bëgg ci am ay recette ñooy fexe organiser doon benn. waaw ah, doon benn ji laa d'accord waaw. ànd ceeg autorités yi ñu ci war a ànd ceeg autorités yi ñu ci war a àndal liggéey liggéeyal askan yu nekk suñu ginnaaw. Hmm. maa ngi maa ngi ko interpellé président Daara yëpp dañoo xam ñu xam ni ay nit a leen fal te ñoom du xam ëpp ñu nit ñi xam-xam. déedéet. ñu leen xam-xam de ëpp ñu mhm. suñu borom moo leen moo leen dimbali ñu jiital leen fan lañ jiital kon nañ wàccaat ci terrain bi dimbali dimbali askan wi jaamu soxla askan wi. te nag jaamu soxla as jaamu soxla askan wi mënut li ci li ci ëpp priorité mooy organiser waat tax mhm. waaw wasalaamaaleykum wa rahmatulah. ah am na solo aada. kàddu yi rafet na macha allah tegu na ci temps mbokki auditeur auditrice ñu bëgg ànd ak ñun ci jotaayu Saveurs émission jotaayu Saveurs rek 88 628 19 05 88 628 19 05 fii ci diwaanu Mbacke Bawol xàll wi jëm Touba ak Mbacke damay ñëw ci poñ bi nga doon wax rek mooy ñun métier bi ñun ñoo ko mën a sàmm suñu bopp ñoo ko mën a aaral suñu bopp ci niñ koy mooy ku ci nekk yaa jàppal ne yow fa nga nekk soo waxe amee rek yaa ko yàq te askan wet buñ la falee jiital la li nga wax rek taxul nga yaakaar na yaa leen ëpp xam-xam wala yaa fa man tax ñu jiital la da ngaa war a jaamu seen soxla bañ wan leen ne leen man ci li ngeen bëgg ci laay dox. waaw ndax liggéey sëñ bi loolu bokk na ci. dëkk bi li fi ne ci taxi ëppul 43 taxi. 43 lan. taxi. maanaam 43 wala 40 gaaraas. gaaraas regroupement regroupement. mu ngi ci 60 et quelque nga naan. 40 60. ñu Pape Ndong rek mu ngi ak 43 garage. waaw kay xam nga tax ma laajee loolu. damay dégg surtout yéen yéen acteur transport taximan ngeen di joytu ci dañ ñoo beddi ci dañ ñoo jox suñu àq ci leneen ci leneen ci leneen. effectivement dëgg la am na wér na. man de jàpp naa ni kenn boddiwu leen yéen a seen bopp. lu tax waaw kay nit su bëggee bokk ci mbir day fexee nekk benn say. Hmm. ku ni la Touba gii war na am ñaari fédération dalaa wax li ko neex waaye waxu la lu wér. Hmm. Touba ñaata tata fi nekk 150 tata. Hmm. ñaata mbàkki Touba. bari na. réew yi. bari na doo nga yéen ci am ñaari ñaari ñaari fédération. yéen doo waxal kan. indil keneen. déedéet waxal. pas d'accord. waaw waxal keneen fédération yi bari na yi bari na benn. mooy bu mag bi mais fédération yi yi mboot bari na. lan Pape Mbaye moo jiite mboolem fédération. RB ci dëkk bi non fédération boo ko tuddee ma wax la ma ma ma démocrate. waaw léegi da ngay da ngay da ngay da ngay indi leeral. Modou Mbaye mi ngi fédération. du mbay man men ban fédération la yor. am na am na fédération. ban fédération la yor. nañu xoolal wuyu ma buñ jaawalee kuy wër naan damaa yore fédération te mënoo maa limal fukki garage yu mu jiite. gab am na fédération. ban ban garage la amul fédération garage la jiite. gis nga bu ñu bu ñu bu ñu nax suñu bopp gis nga dëkk bi déglu rek Modou. gis nañ fi maam lu xew benn phénomène boobu maanaam wallaay bu fekkee ni moom moo jëm ci kanam du avancé loo transport daf koy. daal ban phénomène ban phénomène. waaw kay ci jiitu mooy kenn ay jóge fële rek ni maa jiite nangam jiite naa fukki garage jiite te du la limal benn garage bu mu jiite. am naa mbooloo bu xëyee jël kilifa genn kilifa xaas ko wax ko lu ko neex loolu doxulul am transport ci sa transport yi dañoo war a mànkoo am benn njiit. ñuy doxal ñu topp ci ginnaawam su doxalu ñu teggi teg keneen. laa yaa ngi wax lu jafe. transport ah, nga réglé ko am benn noo jafe na. ndax lan maa ngi ñëw. laay dama dama am ñu groupe yi ma bokk yu bari laay li may wax yaa ma ko gën a xam. sunu kàngam yi sunu kilifa yi nga xam ne moom la ñuy waxal ay tonnerre lee tonnerres boo demee ci làmb ji am na ñuy wax ay tonnerre ponkal yu mag yi Mm, les VIP wax ay roi ainsi de suite ñoo waaw. voilà noonu nga xam ne ñoo ñu war a gën a diriger boot ñu booloo seen bopp ñoo njëkk a séparé wu. waaw mooy li ma boobu laa xamut man pour lan la te ñun dañ di ay gone topp ci seen ginnaaw ñu war ñu wan boo bon exemple bu ko defee ñun ñu ñeme fan jëm xam fin jëm fan la ñuy jaar waaye defuñu ko danañoo séparé ku ci nekk di wut sa. noo suulee sa morom ak noo suulee sa morom ku ci nekk yenu sa dara di ko taawee naan maa gën a am xam-xam ñi la topp naan yow la te dara. benn loxo benn lam ci loxo du yëngu ña la topp doo nga tax ñu fal la xam la reconnaître la bu fekkente nii da nga ko àndal nag ña nga àndal da nga leen yéen boole te ba leen séparé tonnerre yi nga xam ne ñoo jiitu suñu kilifa ñoo njëkk séparé wu ñun gone yi nag pour nga boole ñu day xaw a diis waaw ndax yéen ku ci nekk lam man nag ci transport da nga koy nangul boo ko nangulee ba pare nga fexe noo boolee mais séparation bu amee duñ am dara bisimilah xam nga même garage yi regroupement yi si Sénégal niñ koy falee lu mel noonu da ci am mën nañ cee cité ay garage yi garage. bisimilah. ba bi ci benn sama bos ci la bokk. non regroupement yi laa la wax regroupement. yu mag yu mag yi. transport en commun même pas transport yaa ngi dégg maanaam ki ñu fal ak ki ñu fal duñ xool li mu man kii bokk ci syndicaliste bi waaw kii bokk ci syndicaliste bi moom man bokk naa ñoo bokk comme ça bu ñëwoon Pape Seck ak Pam Ndong. Hmm. Mourou Lay bokk na ci ci ci fédération Pam man tax xool defetu Paam Ndong. Hmm. kon moom Paam Paam la yàndal. teel sa baaraam tuuti ma wax la ko fii nga dégg man ku may mere nag ma mere ci loolu. non non non yow. dama lay jox ku ma doon soo defee fët. te fët boo xam ne ni li delloo transport ginnaaw la dinaa la jut baaraam boo ma meree baax na boo ma bëggee baax na. est-ce que bu ma gisee koo xamante ne nii tàll na loxo di def euh, lu lu transport lu koy jëmale kanam soo ma tàllee loxo dama lay wuy si ndax mooy sama métier bu ma solee dàll transport bu ma solee mbubb transport su ma ngéndee transport su ma amee soxna transport su may dolliwaat sax transport kon transport laay sago mbokkan ci ligne bi bisimilah salaamaaleykum. Ah? allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. naa def sëñ bi. ñuy santaat yàlla bu baax kay soxna si. ñu ñuy santaat alhamdulilah. tur weeg sant yi fooy wootee. Mbène nag Touba Banque Islamique. Eh, soxna Mbène maa ngi lay ziar bu baax soxna Mbène. waaw jaay ko di yaay gaaraas. bi la di am na de dëgg la de. waaw dëgg la <laughs> lay déglu. xale bu baax bu yaru. si xaadim waaw soxna Mbène ñu lay ziar bu baax am na si doomu aadama. jërëjëf. ñu ngi koy ñaanal gudd fa nag wér. amiin baax suñu doon. ñaanal leen ko yéen ñi nekk ñëpp moo leen mujj. amiin baax suñu doon. ci barke Serigne Touba. amiin am cër. ak sëñ Modou Ndeye moom mu àndal. merci beaucoup Mbay. waaw. jërëjëf. yàlla yàlla def doo jaaykati rek yem ci yow da ngaa doon transport. li may wax xam nga ko ku xam Baye Mor Niang Orel Kaffrine. mooy soxnaam kon yow dangaa transport. say doom yëpp transport kon yow ci biir njaboot nga bokk. ñu koy ziare ñu lay ziare di ñaanal Baye Mor Niang gudd fan gu ànd ak wér mu mel ni ma posé question si xaadim mii nga xam ne euh, chauffeur la si xaadim ex jeexalagu ma woon sama question ci garage ndax garage ku ne xam na ko ay ndaw ay dañ fay daje ay jigéen dañ fay daje ay mag dañ fay daje ainsi de suite am na nan ngeen comporté woo yéen seen garage parce que garage bu nekk daa am règlement intérieur bu ñuy wax defe nañ lii bàyyi nañ lii tere nañ lii institution affaire yooyu noonu yéen an seen garage nan ngeen ko mën a jàngale wala nan ngeen ko mën a doxalee ba pëccaxoo googu dafa am nu ngeen ko ja dunde waaw jërëjëf sëñ Modou laaj nga laaj bu am solo ab garage moom boo ci boo jugee rek maa ngi xëy soo ñëwee daa am comportement boo war a man boo boo boo war a yor hmm. parce que ku ne fay jaar xale yi ndaw yi dañ fay daje ay mag dañ fay toog rawatina ñun garage bi nga xam te ne fa lañ bokk nga xam te ne mag ñi bu buñ xëyee ñoom foofu la ñuy ñëw di toog. Mhm. su ko defee kon yow mi nga xam te yaa bokk ci garage bi doonub sëfoor da ngaa war a ànd ak akub yar ànd akub yar ànd ak teggin waaye ñun suñu garage organiser leen ko ba nga xamante ni sax dañ faa def ay ticket ay kii yoo xamante ni. Mhm. ay yoo xamante ne ba nga xamante ne ko fa saaga wala nga wax fa ay waxini teggini mhm. da ngay fay. moo tax loolu mel noonu lu ci bëri. Ah, loolu am na ci garage waaw wàññeeku na ah kon alhamdulilah. loolu nga jàpp ne lan moo ko war a mën a doxal. daa mel ni dama déggoon ci gaa yi ñuy wax ne yow dañ laa dénk sart boobu wala pour ku fay saaga fay ak yooyu ku saaga te fayut la nga fay noonu koy def yéen. waaw ku bokk ci garage bi te saaga te fayoo. Hmm. buñ la fayee nga ni yoroo. Hmm. bu fekkee da ngaa oto. Hmm. dañ lay aj duñ la bind. boo yorul oto. boo yorul oto. moom bu fekkee yàlla dogal ne ba nga yor oto rek. boo ñëwee kenn du la bind te fa yow. ñaata la fay gi. fay gi 1000 francs la. boo xeexee. boo xeexee mille loolu da nga ne ko teg ci doole wala la woon ko teg ba tax loolu am. loolu teguñu ko ci doole sax dañu koo teg ci ngir maanaam ñu gën a yar suñu bopp rek. Hmm. xam ne maanaam chauffeur moom. Hmm. noobul la. te ay kilifa la ni yëpp. Hmm. te ay xale lan te doomu aadama matut. dëgg la loolu nag dañuy mottali ba nga xamante ne boo naroon na saaga sax. da ngay maytu. ndeysaan loolu lu am solo la te loolu lu lu lu jëmale réew kanam la. ñàkk saala macha allah loolu. très ci ci ci lay doxalin dëkk bi. Hmm. noo noonu lay noonu lay demee maanaam garage yu bari ñi ngi def loolu te loolu lu am solo la. Hmm. suñu xaadim. Hmm. maa nga doon laaj benn benn question xam naa ni yéggalewuñu ko muy maanaam bu màngal gi jubsee ñetti client yi ngeen jël wala ñeent waaye seen tarif bi di ngeen koy yokk yokk yokk yokk yokk ba maanaam gan gi daanaka. bu bu bu paasee ba moytuwut paase bi mu jógee Dakar ñëw Touba sax koy gën a yomb. xaadim kii sëfërub Tata de xam nga ko. déedéet du ma sëfërub Tata de. sëfërub Tata la de. consultant laa fi ci rajo boor bi <laughs> mënumaa dawal sax. waaw loolu boo ko gisee màggalu Touba moom ku nekk xam na ni day xat. c'est spécial. day xat lool te embouteillage bi. boo yebeb client bala nga ko wàccee da ngay yàgg ci yoon wi lool. xam naa loolu moo tax gars di yokk paas bi ak di simle kinaay yi. déet waaye jubluwuñ ci dara. xaadim xaadim sa réponse boobu d'accord ma ci de. ah yow day xat te yow ba pare da ngay yow yow yow xalaakee sax buy xat nga jël kenn waaye bëgg a jël kenn waral la ko ñett wala ñeent waral la ko dëkk bi nga naan day xat. ci même sax man ngaa mën ngaa mën ngaa yokk tuuti waaye yéen seen da ngeen koy doublé ba maanaam ki ki ki yebee ki jugee Dakar paasu Dakar ak Touba gën koo yombal paas ci biir dëkk bi ci taximaan yi est que du ñett ñi dañu bokk fu jëm a tax. tax déedéet boole déedéet dañuy bokk yoon rek. waaw mooy ñu bokk fu ñu jëm. moo xamulu xaar bi ñëwal ci loolu. waaye loolu boo gisee bu fekkee Dakar nga jógee lan lay fayeeku moo gën a seer li lay li ngay fay fii. Dakar xanaa doo fay 5000. Dakar am na oto yoo xam ne boo jógee da fay 5000 am ñuy fayeeku sax 8000 ba 10 000. fii ne la da ngay gis koo xamante sax dañ koo fayeeku ay 8000 mu ñëw ci Mbàkke Touba. ñu fayee ko fa 200 muy xeex. ndax lan. ngir naan paas yi dafa seer la lam gën a la lam fay ca Dakar wala fu mu mën a jugee. loolu mooy gën a seer dañ ko fayee ko. mais bokkuñu. kee dëkk ak i dëkk la romb. yow nga bëgg ko wërale ci biir dëkk bi même pas ay kilomètres yu ndaw nga bëgg ko fayee ko benn xaalis bi day bañ. waaye loolu nekkul ñàkk organisation la rek. waaw loolu moom dëgg la moom waaye nag boo gisee màggal moom lépp dañ ko war na oyofal waaye boo gisee daanaka fi mu toll ñuy jaay ñëpp ay yokk. moo tax daanaka organiser ko du yomb. Bamba. yomb de. parce bi nga xam ne Dakar la jógee. wala Kaolack. 40 nangam personnes lay def wala 60 nangam personnes 5000 5000 wala 7000 yow boo ñëwee ñaari nit nga yow wala ñett te li ngay tàncu ci embouteillage moom du ko tàncu ci embouteillage ndax day dawi kilomètre kon boo ñëwee taxi woo taxi euh, client bi pour am xaalis comportement dëkk bi na mu bindoo moo taxoon nga def ko noonu te it benn côté dama koy xaw a dénoncé man d'accord ma. ab client ñëw màggalu Sëriñ Tuubaa gi nga war ko jox paas dalal ko di ko yokkal paas boobu ëpp loolu jaaduwul te doo ci am dara du la jariñ dara waaw mbokk ngi ci ligne bi salaamaaleykum. ñu ngi ku baax ki noo ngi ziar bu baax baax. ñu ngi ko yàlla boole bàkki Muhammadu Rasulullah. sëñ bi. Mbàkke Balla. waxtaan wi neex na de. am na solo. tegu na ci yoon it gis naa fi waxtaan woo xamante ni ma ko déggee daal. Mm-hmm. buñ ko ne doxalee dina am solo. waaw bisimilah dana jafe nag muy bennoo gi. waaw ah. waaye daa am ñu ma déggagul ngeen dara leen foofu. dama hmm. dégg ñu loo wax loolu dama wóor wér na wala déet. muy. ndax dama am ko ma ne daal ñoom. Hmm. dem dikk lañ yor waaye màggal ak Tuubaa duñ yokk benn dërëm 4 lañ daan payu moom la ñuy payu. Hmm. lu man di xew ak événement bu ma doon moom la ñuy payu duñ ko yokk duñ ko wàññi. Ah. te fii ñuy daw bu ca déggaguma leen ñu dara leen foofu ma bëgg na wala déet. wala ngeen dalal leen. dem dikk dem dikk mooy oto Macky Sall bi. Touba ji ba nga xamee ko ko moom dem dikk ma état moom du yokk ah état ko moom du yokku. moom 4000 moom du ko yokku état ko moom. waaw waaw waaw waaw moom 4000 moom du ko yokk ah, kon loolu laa waaye bu dul moom privé bu nekk da nga ko yokk ay 8000 ak 7000 lañ ko yeme. yooyu laa wax nag yooyu laa ñu yokk. 4000 ah, waaw yooyu état ko moom ma dem dikk lañ man nag comprendre ma dem dikk. dem dikk xanaa nangu naa ki jógee Dakar. waaw. di ñëw fii. buy delluwaat. waaw ah. du mën a am dara. Hmm. ginnaaw du yab dara nag bu ñëwee dañuy dekk ay rant ay rant yu sur yoo xamante ne day tax boosaan nag ko euh, gaasawal am fa. waaw ah. xaaju paas mu yokkaat ko ca waaye yokk ko cent pour cent wala cent cinquante pour cent daal. waaw ah. yéem ma de. lu waay def boppam. jërëjëf bëgg <laughs> am na solo muy ñaanal yàgg te wér ba ak suñu tuwaa. am na solo mu am na solo trop mu mel ni. wax lu lu lu am solo. dëgg mbokki auditeurs 88 628 19 cinq émission jotaayu safar ki nga koy animé di Modou Leye président regroupement. xam nga si banque islamique. li sunu li sunu baay ji wax dafa am solo muy bennoo hmm. ndax dégg naa ci kenn ci ministre de transport yi. te mu dëkkoon mbuur muy Omar Youm. bi coow li ko sonalee wax ji bari daf ni leen moom transport ñoom bennoo wuñu te muy dëgg transport amul kilifa ñu di ci meer di bëgg a seen bopp man leen dëgg rek la leen wax di. mais laay loolu da nga ko wax fii sànq ma tontu la mën na la tonnerre yi nga xam ne ñoo ñu jiite ñu war topp ci ñoom roy ci ñoom bennoo wuñ kon boo ñëwee bu ko dal ci fédération taxi yi nekk fii. demal naan la du yomb. moom nag mooy li nga xam ne li li nu gënal ñun. doon si nu njaboot ñun taximaan yi. ñu benn xam nga yi li ko indi ñaari fédération yi. déedéet bisimilah. man xalaat. waaw jàpp naa ne syndicat bokk na ci li ko indi. ma waxal lan tuuti loo xam mooy maa ngi ciy salué passage bu baax Pape Seck ku ci doxi jéego la ku ci am taxawaay la pour taximaan yi doon benn ku ci am taxawaay la boo xam ne pour. ñu bennoo ba pare tax jëm kan saa bu xëyee mi ngi koy dox di ko wax moo xam sëñ bi moo xam maire la fu mu mën a doon maa ngi ko ci gis mu ciy dox ay jéego keneen ku xam ne nuy gis naa la ko dox ay jéego ma ko. yaa ngi dégg li tax ma ni syndicat ci la bokk mooy ñi ëpp ci ñu bokk fii am na ku ñu àndal ñoom ñëpp ñoo bokk kenn ku ñu àndal ñi nekk fee ñoo bokk ñu àndal te ñi ñu àndal di di leen xeexal ñooñu duñu ay ay ay acteurs transport urbain. ñooñu ay acteurs de transport en la. mais lay kan moo ci bénéfice ak kan moo ciy perte. waaw kay ki ci perte mooy ki ci perte mooy. chauffeur bi ah, bi. ndax tax perte mooy moom mosoo dégg mosoo dégg benn groupement di xeex ngir chauffeur si am ay ay ay embauchement mosoo dégg benn groupement taxawal oto yépp ngir chauffeur si ñu mën leen a fay salaire yu baax mosoo dégg benn groupement taxawal ngir xeexal chauffeur ngir xeexal chauffeur muslaam toujours seen bopp. léegi chauffeur duñu xam seen bopp ah? même chauffeur sax seen biir amuñu syndicat syndicat fi nekk transport yi transporteurs yi lay xeexal léegi yow ma dinaa jug complet ci toujours boppam lay xeexal wala toujours fee muy nekk ñi may xeexal sama njaati gëriñ man ma topp seen ginnaaw di dagg sama xëy di daw suba ak ngoon gisal na chauffeur si ñoom ñoo ñàkk fayda. dem ñoo war a am fulla ci seen bopp. xool li baax ñu di ko doxal bañ a topp ci ginnaaw kenn fii ñi ngeen topp soo ba léegi fi mu doon li koo fi topp di yàgg yàgg ñaari at ñetti at ngeen bokkoon ci gaaraas bii comme ça classe mu di léegi fi mu toll nii bu woote warum daje gaa yi topp ko ñaari at ñetti at soo demee këram sëñ bi rek naan kii kii fu mu jëlee li mu yor fekk na yow li nga waroon a yor rek <laughs> dañu bàyyi lii ñu exemple exemple bi nga joxe baaxoo de mën nga ko wax keneen moom ba mu des man man moom exemple yoru ma dara samay ne mais dama laa xamal ne la li wax lu solo la mooy ñun nan bennoo mooy li ñu jig nan booloo mooy li ñu jig ñun suñu bopp mën na noo boole suñu bopp mën na noo bennoo. est-ce que xam nga benn bi am na. parce que ñun ñu arrangé wul. ñu ma arrangé wul. waaw. ah ñun de xaw ma leen man kon de gisuma leen baax. <laughs> de da nga naa ni da yow kay da leen xam tëj maa xam ne ñu la ci bopp bi. xam ne buñ bennooyee ñoom lañ ci daal bénéfice wu daawuñu ko ci am. dëgg la de. wér na de leen d'accord naa ko ak ñu ñëw si seen xaalis seen mu mel nii am na question bu la bëgg pose mooy chauffeur chauffeur oto la boo xam ne bu est-ce bu yoree oto boo xam ne nii leer na ko ne mi ngi nattable oto bi paan nay frein wala paanu lu frein nan la ko war a def daa war a xëy dem taal dem liggéeyi ba mu naaj mu dem defari ko ba ilaa moom nan la yaakaar ne nan la war a def si oto bu amul frein waaw oto bu amul frein moom bu fekkee da danga da nga ko da avant ngay wàcc xam nga ni sa oto bii nii amuti frein te loolu moom lu ko gën a dem dansé man gisuma ko man xaadim boo boo ko wàccaalee paan gi ni daa amuti frein oto boobu moom danga ko war a gaaree ba xëy dem def tout droit ci mécanicien yi ñu defaral la ko ba am normal nga doog a daw ci télé bi bu fekkee nag yàlla daa dogal ni maam dalaa dab ci yoon te da nga am mécanicien boo xamante ni wala fi mu la def fi fi nga paanu sax amut mécanicien hmm. te il faut dem ci mécanicien bu man la koo defal te yow mënoo koo defar hmm. kooku moom bu fekkee mën ngaa wàcc ci télé bi wala nga xool noo ko ba dem ci mécanicien ba mu defar rek waaye daw ci télé bi ndax xam nga ne yow dangaa paani fere lu dal yow yaa sa bopp kooku loo ko jàpp ab chauffeur la wala soxoor la wala dawalkat la kooku moom du chauffeur dof laa ko jàppe kooku kay dofa ko tane léegi nag après bu fa defee soog ku mën a ñëw bu yemee ci moom dañ naan chauffeur bi te yorul comportement bu chauffeur jikkoy dawalkat moom la yor kon nun nan xam suñu bopp. Hmm. ba xam lu ñu boole. benn question bu bëgg a ñëw si yow mooy xaarim tey bu fekkee yow da takk sa ngand ak mbaal di dox lu bari. Hmm. ñëw ba ci digg virage di ko jub bi nga jub di dugg si virage bi am na benn tableau bu lay signalé na la xaarim boo duggee si ci virage bi. Hmm. booy euh, table bi moo lay signalé ne am na benn bu nekk sa kanam. Mhm. nga ñëw ba ci digg virage bi paan fa moo xam da nga toj pneu wala sa oto daa fay ainsi de suite ci diggu virage bi nga paan. Mhm. ana nan nga mën a def bay wan ñi nga xam ne ñoo jógee voie bi nga jóge mhm. ñu xam ne am na oto bu paan ci diggu virage bi. waaw loolu moom bu fekkee ne maam da ngay daw ba ba ci virage nga paan ci sama xalaat. te paan nga te mënatoo dem li li sama xalaat mooy dangaa war a génne say teraanga ruus nga yóbbu ko fa sori ci kaw télé bi eh, centimètres yu xaw a kii bu ko defee nga teg say teraanga ruus nga xam ne ku ñëw ba ci virage bi dina xam ni am na oto bu paan foofu waaw. jërëjëf euh, question bi leer na mais des na tuuti mais nañ la ko nangal ne baax na léegi tey xaarim boo doon dawal sa borom yor nii oto ñaar rétroviseur la am. oto ñaari rétroviseur la am. ñetti réfrigérateur la am. ban ak ban ak ban. bi ci kanam ak ñaari ne ci. Euh, bi ci kanam mooy ban mu nekk ci kanam. mooy bi nekk ci digg bi rek. intérieur waaw. waaw mooy bi nekk ci digg bi. waaw ak ñaari côté yi. ñaari côté mooy. côté chauffeur bi ak côté client bi. waaw waaw. boo doon dawal ba ci yàgg tey nga gis ay tan yuy naaw ci kaw ak i picc. Hmm. lan moo koy waral. lu la kon wax ci loolu. yëpp normal ngay dawal ba ci yàgg si ñaari tur yëpp normal ngay dawal ba ci yàgg ngay ay picc yu naaw. Hmm. ci sa seetu bi. Hmm. bi far ak yow. lan moo koy def. lan nga war a def. Ah. waaw loolu moom sa da ngay da nga koy romb jàll rek. ci li ma gis. <laughs> romb jàll rek sëñ si dara luy naaw jëm ca kaw moom. Hmm. yaakaar naa ne loolu mënoo koo may. loolu sëñ Xaadim bu la arrivé <laughs> loolu bu la arrivé tout le temps sa sa ñaari rétroviseur yëpp réglé am na bu dee réglé ndax rétroviseur bu bu normalé ba réglé rapport oto bi ngay gis. Hmm. derrière. saa boo xoolee rek moom ngay gis waratoo gis lu leen lu moom signal bête bu signal arrière bi moom ngay gis parce que boo ko gisutul rek di gis ay picc yu naaw ki tànn deerale na war a taxaw rek lewaat ko ba mu dilsiwaat ci ci ci elu bi nga xam ne maa ngi gis oto topp ci sama ginnaaw bu dee gauche bu dee droite bi noonu la bu fekkee virage boobu la bu dee ci virage bi la dangaa war a dilsiwaat ba ci table bi nga xam ne moo la permettre loon di la wan na la yaa ngi dugg ci virage hmm. nga taxaw fa compter 30 mètres bu dul code bu dee code da nga koy dépassé nga compter 30 mètres ñëw ba ci 30 mètres nga samp fa sa triangle rouge pour oto bi ñëw ak lu mën di daw 30 mètres yooyu balaa si ci ci ci tableau bi. Hmm. bu koy wax na ko yaa ngi dugg ci virage hmm. dina wàññeeku. kon bu rombe tableau bi hmm. balaa agsi ci virage bi dina la fekk yow mi nga xam ne yaa ne paanoon ci virage bi vitesse am dina wàññeeku kon loolu moom la chauffeur di ba tey bokk na ci comportement chauffeur bi nga xam ne client bi ñëw na la asalaamaaleykum fekk la ci cousin fekk la nga toog nuyu la jàmm seen yow ne fii laa bëgg nga yóbbu ko nan nga war a te bokk ci ñi nga xam ne ñoo war a gën a accueillir ndax yow client bi nga xam ne ganuk Sëñ Tuubaa fu mu mën a jógee bu dul màggal ak màggal ak exemple bi mu wër njëkk wane di ko wane di ko joxe bokk na ci yow comportement taximan ndax bu ne salaamaaleykum bu ñëwee jël taxi yow nan nga war a def sa oto da ko war a yokkali musique mu koy dégg ci noppam bi bu demee daat ne gan day nettali bu demee daat ne Tuubaa kat ndeke dañoo dàq déglu musique daa war a wàññi sa rajo waaye laa noo war a doxalee ak moom bu ñibbi yaa ko yóbbu buy dikk yaa ko awi nan ko war a doxalee ak moom. waaw sawar moom rawatina taximan ndax tey jii bu fekkee ne client dala dala da ngay daw ba mu yàgg ab client daal lay arrêté. Mhm. nga taxaw nga fekk yow ngay déglu sa sa sa rajo. Mhm. yow dong sa oto. Mhm. client bi arrêté la fi mu lay arrêté rek avant mu yëg ni yow sax yaa ngi déglu dara war ngaa mën a wàññi rajo bi. ba mu yem ba nga xamante ne li lim lay wax. da koy dégg ndax yenn saa yi sax ngay wax a client mu naan la dégguma li ngay wax. li koy waral maanaam rajo boobu ngay yokk moo waral loolu. waaye léegi damaa boo xoolee fii. seen chauffeur si sa classe gi nag ñoo ci bari dañuy yokk rajo bi maare day taali booy wax ak ñoom sax doo dégg li ñuy wax loolu lan la jàng yar la wala manque de respect la wala xamoo ñàkk xam sa bopp la te chauffeur damaa yaakaar ne oto bi moom nga gën a war a déglu ko rajo bi parce que car roue war nga ko déglu bu changé woo vitesse bi ngay changé war nga ko déglu ni nga ko daan changé régime ba lay jox est-ce que c'est normal wala normalul loolu laa jàppoon ne woon war la war a comporté wala wala da nga yokk rajo bi di déglu say musique ba neex. déedéet loolu waroo yokk sa rajo ba mu ba lii parce que oto boo koy dawal di yokk sa rajo ba sës te jii sa oto sax bu paanee dina am wala mu am ab buré doo xamee yow lu mu paan da ngay jikki-jikki daw ba sa pneu ma man da man mi gisal naa sama bopp oto boo xam te ne dafa daw ba pneu bi romb ko romb ko nii nga xamante ne loolu li ko ñàkk waral xëy na daa nekkoon ci rojom wala amul teewluwut ni maanaam oto sax la yor loolu tamit da koy waral oto boo ko yoree sa projet da nga ko war a wàññi ba mu yem boo buree bu amee nga mën koo dégg su la kinaa wooyee ni la woo nga mën koo gis mais am na nooy concentré wu ci rajo bi da ngay dem ba yow fàttali sax yow ab taxi nga yor loolu lépp nag maanaam ñàkk concentré wu ci li ngay dawal ak ñàkk xam wëlluur bi nga yor moo ko waral. jërëjëf jërëjëf mooy desuwaat ci kàddu yi fi lay rotaloo léegi suma consultant euh, lu nu boole ma ne ko. tonnerre yi nga xam ne ñoo ñu jiite. ñoom ñoo njëkk a ko kon ñu luy boole ñun dana jafe mais maa ngi del si sama kàddu di waxaat encore une fois te duma nopp ci di ko wax ñu dañ di ay gone mag ñu nu jiite nan ñu wax fan lañu ñu jëme fan lañ ñu jiite nanu dimbali di ci woo ñëpp di ci jiite suñu baay idika président regroupement tous les chefs regroupement transport yëpp 14 régions yi moo leen jiite di ci wax suñu baay Xaadim Guèye di ci wax Mamour Jëmb sàll Mbacke président bi gañee mbedd ndoy bu yàggut di ci wax sàmba sàll di ci wax waa gaarasu daara gaarasu daara ni ñuy woo ci taxi Pape Seck Pape Ndong ahlu transport ñëpp laa woon nañ leen fexe def benn butéel benn sal mooy li ñuy dimbili ñun gone yii bu ngeen ñu bëggee dimbali ci transport bëgg nu jëm kanam dangeen ñu boole buñ ñu séparé bu ngeen bëggee ñu jox leen seen gëdd kilifa yi da ngeen bennoo bu ko defee état ki booloo la ñeme du xam nu koy def ndax bu laalee njaboot gi yëpp a yëngu te buñ booloo ci lañu am doole surtout ma département Mbàkke bi nga xam ne transport ku ko xamul dégg nga ko ci am dooleem ak ginnaawam nañ booloo doon wenn say bu ko buñ séparé woo nag bennoo état danañu naj ci ruq di damat benn par benn day xool kaj ca gën a am doole mu damm sab tànk woo ka ca topp dammub yeelam woo ka ca topp dammub loxoom nan lànk loolu ñun gone yi bu nu kenn séparé tonnerre yi ndaw yii moo xam ñoom Pape Seck la Pape Ndong Gab Fata keneen koo ci lim ku mën a doon ku ñu lay woowe ci transport ne da nga ko bëgg a defar te gëm ko te bëgg a dimbali ndaw te di ko dundal te bañ koo dunde nañ dimbali sëfoor su ndaw sii bu ma mu lay taxawee fee rek xam naa diw te diw laa àndal rek wër maa wax ak moom déedéet boo ko defee da ngay juum ndax noo bokk li nu bokk muy transport boo indi woon taabal ji teg fi ki kese ngay gis lu mën a xew nag permis la ñoo koy nuroole yoroo permis bu sokolaa laa yor bu verte wala kii yor bu rouge benn permis lay doon boo xewlee chauffeur si ngay gis bu tey jii exemple bi nu jógee rek sunu rakk jooju papam wàccoon di seexu naa mbaay ñu jóge fa léegi chauffeur si la gis bu fa nekkoon di xuloo ak a xeex naan man sëfoor laa waaye bokk mu ci yéen du gis kenn. Hmm. kon nanu bennoo nanu jàppoo xam ne ñun benn lañ bu ñu kenn def yetu xeexukaay nan lànk ñun gone yii taxam fa jëm laay daam loo ci bëgg. waaw xam nga damaa dégg naa ñun ta xamuñu fu ñu fu ñu mag ñi mu wax leen fu ñu leen jëmee. nit nag booy ànd ak moom mu bëgg laa yóbbu tax yow xamoo fi mu la jëmee su ma doon yow taxaw xool. bu dee yow da bëgg foo jëm. te leer la kii moom fi ngeen ànd. ak fi la bëgg a jëmee nekkul fi gën ci yow. Euh, bu fekkee ni njiit ñi man jàpp naa ni ñoom ñëpp ñi ci ëpp ndax bu ñëpp yemoon am ñu génn seen cër. te yàlla yemalewul ñëpp. lépp am na ci ñoom nit ñi moom ñi ngi def lu baax di ko doxal waaye am na ci ñoom da nii heure buñ taxawee ba bëgg a doxal lu baax am ñu ne ci ginnaaw pour yàqu ndax mën nañ ci indi ay misaal fan yee jàll ahlu transport ñëpp jàpp nañu mànkoo nañu ba def fa grève bu réussir mooy cadre interroutier cadre interroutier bi ngay wax yaa ngi dégg hmm. ba président yaakaar naa recevoir na recevoir na njiit ñi wala hmm. lenn dong nga ci mën a déggee mu ni président may na leen ay ay billet màkka ak ay ay ay point point yo moom ay turu wax la keroog ba ba bañ ko waxee xam naa li ma leer mooy ci lay jàll. mbokk auteur autrice 88 628 19 05 ku bëgg a ànd ak ñun ci émission jotaayu chauffeur fii ci Baol Média xale yu jëm Touba ak Mbacké. ñi ci ñi ci bénéfice wu toujours mooy ñi ci kanam ndax ñooñu laay wax ni. ñu ci ëpp bëgg ñu bennoo ndax yow ku xëy xëy toog ñu may la bee màkk te yow lañ la doon doon doon tax ñu boole leen du pour bee màkk yow moom carrément yow bénéficié wu nga ña la yebaloon moom taxaw di xool sëri ca sax indi indi leen ko sëri ca kon ñu ndaw ñi ñoo war a am pas-pas ak gëm-gëm ak di xool ak a saytu ñi war a jiital waaye diw laa àndal bu ñenn ñi ànd ak diw rek naa ànd ak moom man nit kuy doxee noonu lu yàqu ci dëkk ba yow. merci beaucoup laay euh, dama laa bëgg a laabiré benn kii tuuti rek. mooy ñoom te temps colonial ba léegi ñuy séparé wu ñoom transporteurs yi wala chauffeurs yi ban résultat lañ ci amagum ci séparation. ban du ñoom kase. adduna ñëpp ñu maanaam wolof daf ne ñu bokk ñu bokk euh, teen. ñooy laxasooy goj. ñooy laxasooy goj. effectivement. képp koo xamante si nii même sax l'islam suñu borom bi mu ko tegee def ni julli ñi waaye def ni kat julli kat julli mbooloo moo ëpp. moo ëpp yool. moo ëpp boo gisee ma wax la loolu mu toogee ne nañ boole nañ benn dama la ciy jox ay séddale ji ay lu ma war a cité ay exemple yu leer ba si njëkk mooy vers blanc yi bi ñu fiy ñëw. ndax euh, bokkoon naa ci ñu ko doon jël bërki démb ci commune bi préfet ngi toog le maire mi sous préfet ak le maire Abdoulaye Ka du ko nuyu ak président commission transport muy Baye Khadim Guèye ak vice président Pape Seck ak Pape Ndong fédération Pape mbay mën naa la tonnerre yi nekk ngànk transport ci commune Touba ña nga fa toog mm-hmm. ak ñun regroupement président regroupement yu bari taxe urbain ainsi de suite ñuy waxtaan ci wàllu weer blanc yi su ma juumal 150 war na fee ñëwaat genn wàll gi dañoo jiñoon ni Idika ak ñi mu àndal ñooy joxe weer blanc yi wala bokk nañ ci ñi ko joxe wala Idika mooy seet ñi nga xam ne ni enragé nañ ko te bokk ci ñoom mu dee leen jox weer blanc yi maa ngi nuyu sama waaja daam joxaane serveur la ci weer blanc yi di ko jaajëfal di ko kontaane bu baax a baax ñii ne irga moom moo koy joxe xool ñu ko arrangé ak ñu ko neex ñu bokk ci moom mu jox leen ko genn wàll gi daal ne déedéet ñu am caution ndax booba maîtresse sax ñëw na directeur bi Kanté ak ba ak waa CETUD ñëpp ñëw nañ ci réunion bi pour mu leer. macha allah ñu ne vert yi ñi nga xam ne dañ fi amoon ak bor ci banque bi. crédit ñemeetuñoo dellu pour wut crédit pour am ci oto yi wa ilaa ñi bàyyi Bamba yi ak yi mbokkam daan ne ñun fédération bi 25 gaaraat ci lañ toll. préfet na ko recevoir naa la fii sama bureau li ma recevoir ñeen ak ñeen même kàddu ngeen wax moom mu ne si waa gaaraasam yi nee nañ caution bi dafa seer 1 million 500 500000 mille am xam nga kon wax ji daan na àttewul daa di leer Idika mën ko jiñoon du ca dara. oto yi am nañ 15 mois ci bureau bi ci ginnaaw gaara Dakar ñu naan danañ jël ak duñ jël ak fii la xari jaar ainsi de suite ba mu mujj ñu ne dañ koy delloo ilka ci laxasu ba oto yi taxaw delluwut bi ñu essayé ñu ne dañuy essayé 10 yi ba mu doxee ñu ne nañ ko renforcer def fi mu doon 35 baaxaanum gi bokk na ci ñi ko dogal oto yi daw léegi nag mos naa ko neex naa ko ba ba naa ko amut léegi nag ñi nga xam ne nii dugaloon nañ ci seen xaalis te séentu ne oto yi baax na ñu ne leen dañu dolli ki amutoon nag daxaw ne buñ ko fi indee du daw ndax euh, dañ ma ci waroon a waxtaan te woo nañ leen ci waxtaan ñuy daat koy jiñ ka daal ne irga moo euh, ay ñooñam la ko jox kon foofa surtout maintenance boog di mois leeral na fa ne irga gàllankooru ko woon yoonam ne ku ci joxu ci ñooñam yëgu sax li gaal gii mu amu ca far boo gisee ma wax la loolu nañ ñu booloo camp yi xëccante xam nga boobu tëj naa ko nga ñëw gaaras su Mbàkke ak gaaras bii ak Samba Sall ñi naan orel bi bu yebee fii warta jaar fee bu ñëwee Samba da koy aaye wala ñii dañ koy aaye sa orel bi jaar Mbàkke warta ñëw Touba bi jóge Touba warta ñëw Mbàkke loolu nga ñëw ci Maam Mor ak garasu héliport bi dégg fi seen coow lu mel noonu mooy séng ga ci yoonu Touba ñu doon ko xëccoo waa Touba boo dee côté bi ñoo ko moom boo jégee waa Mbàkke ñoo ko moom ñu xëy yebal fa comme dañuy xëccoo dañu amoon te ñoom bi ñu dem élection dañu ne communal lañ koy def di demuñu ko départemental mooy ku dëkk biir Mbàkke am 40 Mbàkke mu am droit voté ci regroupement bi ku ko amul nag doo ci voté léegi ñu dem bu yi jàllee Mamour Gagné ñu ne nag comme ñoom nee nañ communal lañ ko seen bopp lañ ko yemale te doomi Mbàkke ak Touba gare routière yi mënoo leen a xajale doomi Mbàkke ngi xëyee fee doomi Touba ngi xëyee fee benn lañ comme a jéem a wut ay séparation ñoo ko moom te ko mayoon jëlaat nañ liñ moomoon <laughs> léegi bi nga jëlee xëy yebal fa ay coxeur Samba Sall ak consort la maa ko dégg audio mu ne dem nañ fa laaj leen ku leen fa indi ñu ne idi ñu woy xam ma préfet sëñ sëñ ba xalifa ba ñu ne leen fii da ngeen fiy jóg ñu demaat ñu ñëwaat ñu ne fii duñ fi jóg ndax ñoo ko moom xëccoo yooyu la loolu lépp lu tax ko répété mooy xëccoo yooyu laa ne la wuñu ñun waa transport gone yu ndaw war a toll ci boole ndax ñun du ñu jël benn tànk di ko fecce ñaari tànk leen di fecce ndax man lu mu gàtt gàtt mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk mooy damaa jiite ak regroupement tax samay gone fu nii la ñuy dugg dañuy jànkoonteeg ay jafe-jafe te suñu amee jafe-jafe su ma lijjantee loola mu tëma am na fu ma yaakaar ma dem fam pour mu lijjanti ko kon man damay fecc ñaari tànk moo tax ma ne nan ñu boole bu ñu séparé mooy li ñuy jariñ te mooy leen di jariñ waaye li nga ci wax moo ci ne tonnerre yooyu nga wax duñ bëgg ñu booloo luy séparé la ñu wut parce que boo duggee ci groupe yii ay jàll ñaa nga fay dégg ay. baal Sane dégg nga yaa ngi dégg Fallou Samb ku ci nekk doo xam foo foo foo war a bokk. xam nga li ma jaaxal ci transport. lii lii loolu. xam nga li ma jaaxal Touba ku ci bëgg dara rek sëb sëñ ngay woo. sëñ bi transport wax dëgg yàlla xamul la ko ci am na ñoom nag ni boo leen waxee li nga leen wax loolu la ñuy jàpp ndax jàpp nañu ni doomu aadama lépp lu wax rek lu wér la. boo dëggoo. waaw ñoom ñoom ñoom loolu lañuy ñuy jàpp suñu kilifa yi. waaye yow loo moomul di ko xëccoo ak tooñ mënta weesu loolu. Hmm? waaye rafetut rafetut garage bu Touba ak bu Mbàkke di xëccoo benn place. loolu ñu arrangé ñun de. même bu leen arrangé daa rafetul. xam nga mbir sax mi ngi arrangé nit mais def ko dadul rafet. Hmm. yow yaa ni ñi dëkk sama dëkk bii rek ñooy wati waa léegi yow boo gañee kay bàyyil ñi dëkk ci dëkk bi rek doxal bul jël yëfi kenn bari ci xëccoo. loolu laa ne nañ ne nañ benn te bañ a séparé yow euh, laay yaa ngi maa ngi la dégg nga ne bul tudd tur ankay dinaa tudd tur ndax tey fii boo leen wax réew mi da nga wax président de la république te ci turam ngay jaar ñoom ñoo opté nekk ci sunu kanam doon ay syndicat transport routier seen i tur ku ko déggul xam ne dama ne man ñëpp laa tudd man. xam na euh, daa am ku may tudd ak a bàyyi kenn. moo tax ma tudd ñëpp acteur transport bu doon waxtaanal. ma ne ko ci syndicat daa yàq transport. donte ne nag xaw ma lu fi def mais lii ma fekk sama dund. diiraa bi ne ci transport ba di ko gëstu bu transport yàqee syndicat la syndicat jël ko xamul dara waaye ci moom la bokk ma financé ko jën ay carte di léegi nañ def léegi regroupement yi ab regroupement ci dëkk ngay da ngay def élection nationale jël say biis duy yóbbu ñu ne wa yow dañoo xam kooku lan lay def ci dëkk ba. day de. ah loolu ak ñàkk fayda mënu koo weesu. sëñ Xaadim suñu dellusee ci wàllum taxi bi nga xam ne. li ma wax léegi ne mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk mooy taxi ci wàllum organiser ko ba mu nekk ci doon leen norme buñ ko amul 100 pour cent it ñu am ko du moins 90 pour cent ou bien 50 pour cent maximum. parce que umbule woon ba kii bu ñu sampee Mordas foofu suñu gaara rek jàpp nañu fa benn euh, waaye bu yor benn 307 daal ni man kat mécanicien la sax du ma taximaan damay wàcc di lijjanti. <laughs> damay wàcc di lijjanti nee na moom mécanicien la te dafa ñëw suñu arrêt ba jël fa client jàpp ko mara daal waaye léegi kooku ni mu la waxee mécanicien la est-ce que sàccimaan bi mënul ñëw moom it yanu yëfi jàmbur bu ñu waxee lu ñuy wax taximaan nan lañu war a mën a def ba loolu mën fee jóge loolu comme waxoon nga ko sànq sax loolu ba moom li mën a def ba mu jóge fi mooy booloo rek képp koo xam ne maanaam xam nga ne ab kii ab taximaan te leer na la jubut nga teel koo signalé rek ñoo xam ne jubut buñ ko defee rek lu bari dina fi wàññeeku. Hmm. parce que euh, loolu dafa bari ci dëkk bi fi mu doon yi am ñoo xam te ne ay mécanicien lañ ñi ay tule ñi ay électricien dañuy jikki-jikki yor oto yi jàmbur di taxi su ko defee ñooñu lu leen neex la ñuy def bu ko defee ñu ne taximaan yi te fekk na ñooñu ay taximaan. man de jàpp naa ne oto yi amul këy ci dëkk bi xanaa ñoo ko waral. waaw parce que li tax ñu war ko organiser mooy làmp yooyu ngay ma wax fi léegi hmm. bokk na ci li koy organiser mémoriser ko bañ xam kan mooy kan. parce que tamit euh, boo yore oto boo xam ne nii euh, dama ko del kenn moom laa yor sama garage bi moom la ñu yor waaye yor oto boo xam ne nii boo si defee tojaa ngi tàppee plaque ba mhm. taf beneen kon nan lañ ko mën a xamee ak nan la ko mën a moderniser ba mu jaar dans les normes kon foofu rek la ñu war a mën a jaar comme lu mel nii mhm. organiser ko dem ci maire xam ci ñun ñooy kan maire xam nañu ñun ñooy kan parce que taxi bu ju fayut droit it ba la neuf bu la jàppee da fay six mille ak frais la kon ñun bu ñu amee nangam gaaraas lu fu nekk ci taxi kenn xamu nu toll oto bu ne di fay 3000. kon war nañoo mën a jàppale organiser ñu bañ tegu ci règlement. lii bokk na ci charte yi ñu wax pour ñu réglementer ko. consultant. waaw xam nga. dëkk bi transport bi moom day gën a pëccëxoo. lii waay. waaw ndax li fi nekk ci oto waroon nañoo am fu lay góorgóorlu ba organiser ko nekk ci yoon ñu soccee dooli leneen waaye xam nga ni li fi ne ci oto nga bëgg cee dooli waa lu tollu téeméer oto ak juróom fukk. mooy comme. comme yow nee nga vers balaay cent cinquante war na fee ñëw. mais vers balaay dañu organiser wu. mais tataay dañoo organiser wu mais dañ fee fekk ñu organiser wu. mbir bu ko ñaar séqee bu kii organisé woo kii organisé wul rek du mën a jag. non attends laay moo tax ñun li ñuy woote ci ne dañoo war a bennoo dañ koo war a def ndax li tax ñu war koo def mooy li ngay wax ni organisation boobu moo ci kon bu organisé woon rek. xam nga. weer balaa yi nga wax ne dañoo organisé organisation bi ci ñun lañ ko fekk si. kon bu ñëwee fekk ñoog ñun ñu taxaw. danañu organiser. xam nga weer balaa organisation bi bennoo bi moo ci njëkk. weer balaa yi duñ mën a ñàkk organisation xamul tax dañoo nekk ci benn lieu maam ñu leen ñu leen ñu leen fi indi ñoom ñëpp. ci benn lieu dañoo am même pas ndey dañ bàyyi ndey maam ci benn dañoo nekk ñoom organisation bu concret. comme comme ñoom buñ déparé fii fii la ñu yem indi seen ay ay tarif yu normal. non loolu d'accord mu koy xamul tax. danga baal ma tontu ma jeexal bisimilah baal ma tontu ay ligne wut waaye ba pare wut former sa force ba nekk nit ñu nit ñu nit ñu yaa ngi dégg ba mi ci yéeg tey bu subaa da ngay da ngay bëgg yéegaat ci am nañ adoonaj boo ci yéegaatee ba léegi da nga naan ci yéegaat ndax lan ci xamadi ci ñàkk yar ci leneen ci leneen du fi jeex ci dëkk bi oto na fu ko neex tourné yëpp ay nit war leen yóbbu fii ba mu yàgg gis client yi ëpp fee nga tourné ni leen fii laa yem waxuma ko ngir toog di ko xalaat dama koo gis tëj sama bët di ko wax wax jii may wax nekkul ne lu may xalaat la lu am la ma gis ko di ko wax. loolu li ma ko jàppee man mooy formel ak informel. waaw kay. réew mi informel moo war a jeex ci dëkk bi. non. way lu tax nga wax ko. kay. maanaam dëkk bi verre blanc yi dañ ñëwoon borom taxi lañ koy jox du dëkk. Hmm. première réunion sama karam. Hmm. ñoom nee nañ caution bi dafa seer. 500000 hmm. la. lañ bëgg lañ bëgg. léegi ma jàppoon ni mbir boo koy jox nit lu tax nga di ko jox lii mu yor daa baaxul taxa man ci pexe est-ce que gënul woon projet boobu ñu conclure ko ba état am ci doole. man leen cee jàppale ba bu ñëwee muudi bi yoroon ab taxi day joxe taxi ak 500000. Hmm. su ko defee moom jox ko verre balaa. merci beaucoup d'accord naa ko yow. loolu su ko defee transport bi dina organiser wu ndax nag mboolem kon verre balaa yi ci dëkk bi rek. Hmm. ñoom nekk nañ ci benn lieu. Hmm. mboolem tataa yi nekk nañ ci benn lieu. mboolem mbàkkatumaa yi nekk nañ ci benn lieu. taxi yi ñu fexe ba ñu nekk benn kon su boobaa yii ñuy dégg ci transport dëkk bi di fi am. merci beaucoup loolu de moom lu lu lu ma d'accord la lu waaye bu dee benn benn benn secteur mooy am ay xàjjaloo. bu dee taxi ñaari fédération Mbàkke Tuubaa yi taxi kon duñ mën a nekk. Mbàkke Tuubaa yi ak Rimi duñ mën a nekk tataay ak nangam tataay ñun ci suñ biir. ñoo war a nekk benn par benn même commission bi sax commission transport bi ci dëkk bi dañ koy dañ koy dañ koy tegee ma dama cee d'accord yàgg naa ko wax nag. comme waaw kay. commission rek jikki-jikki rek nit ni ko yaay yaay déedéet yaay commission naa nga bokk ci na déedéet dañoo war a xool taxi yi ñu benn fédération am seen représentant di toog ci commune bi. mais laay taxi bu ñu amul benn fédération sax mën nañoo doon ñaari fédération xam ne mën naa ne la ñooy bokk du sotteendoo ay xalaat ñooy bokk ñooy bokk li ñuy wax ñu xam ne ñun ñëpp di nasandoo di noccendoo même bu doonul benn fédération. waaye war naa am ku lay représenté ci commune bi d'accord nga loolu. waaw. xam na am na kan la. Pape Seck moo di Pape Seck bàyyil Pape Seck Pape Seck neme wuñu ko ci. taxi dañ koo demee vice président en tant que Pape Seck. Pape Seck moo fa représenté. déedéet biñ koy demee neme wuñu ko ci représenté taxi. dafa nee nag di di doxal taxi xam nga lii problème bi mooy. Mm, mm. mbir mi kii biñ koy jël lii moo tax ñu jël ko. Pape sëñ bi moo ko yebal ngir mu nekk. ci li mu wax effectivement waaw loolu dëgg la. kon kon taxe yi yebaluñ ko. déedéet. waa représentant nag nit a koy tànn ki muy représenté ñun ñoo koy tànn. d'accord Sénégal yi kenn ko ñoom ñun Sénégal yi ñun ñooy tànn suñuy député yóbbu leen ci assemblée. waaw kon kay. ko Pape Seck nekku fa ngir ngir ngir représenté moom dafaa ne ngir transport moom bu xeexalee taxe bàyyi kii rek deful yoon. déedéet loolu loolu waru ko sax parce que li tax loolu waru ko commission transport. moo topp baax sama xarit loxo. moo moo topp ci. kii de transport di baax xarim gi kon euh, xuloolal kee jàppal kee mere ke bàyyi kee waru ko. kon daa war a tëddee njaaxanaay. kon kooku représenté taxi ki ko fi représenté chaque jour réunion bu mën a am buy wax du génn taxi ci taxi lay dugg ci lay yem. maire bi mu wootee barki Demba Ndiaye bi mu wootee ñaari fédération yëpp seen i njiit ñëw na toog ku ci nekk. maire nag boobu fële foofu damaa waroon woo rek mu ne ko ci maire ñaar ñii. tas leen ñu nekk benn. non loolu maire mën naa ne yoonam mën na jebale nekk non loolu yoonam mën na jebale nekk. xam kan la ci yoonam di nekk. ñun les responsables. muy président regroupement yi. oui yéen daa ñun la ci suñu yoon nekk ñun ñoo bëgg ñoom ñu bennoo ndax bennoo gi mooy suñu arrangement te mooy li gën. Muudu Muudu Muudu moomu sant laay wooyee jaar kooku de xam naa ci li mu wax xam nga nit nag ci kàddu mu ko mën a noonu la mel nag sëñ Mourou Sall. xam naa ni dëggu la xam même pas dëgg gi waaye. nit ki dafay wax ci xam-xam ngir doxal. ndax dëggu gi mooy su ko neexoon ne man. Pape laa bu baax. ne mun Pape mais dafa leeral ñoom ñaari yow fédération yi ñaari fédération yi li ci Mourou Sall wax képp ku taxaw ne fédération yi ñu ngi dox rek da ngaa wax li la neex. Mhm. képp ku wax ci ñaari fédération yi ñi ngi dox da ngaa wax lu la neex ndax bii day leer na kii nee na bokk naa ci waaye damaa dem ba gis ci politique ma reculé. Mhm. bii ma gis ci ki ko yore puusul paasul ma ba. ah loolu de moom gone am nga ci droit waaye wax dëgg yàlla. te yéen ñi ci bopp kenn mënu laa wax ni bu dee ko Pape Seck kenn mën taxaw ni lii ak lii ak lii la moo ci dox ba mu gis sa bopp bu dee yow doo ko wax. ci Pape non loolu mënu ma ko wax xamal tax mënu ma ko wax ndax bokkuma ca. bokku ci Pape Ndong Pape Seck laa mënu ci laa bokk mënu ma ne la lii la ma defal du ma la ko wax. Ah, kon eh, dama ne. man lu ma ragal a wax toog fay jooy du ma ne la yàlla nuyu na la te gisuma ko man du ma yàlla kenn ay dàllam li may am ginnaaw yàlla maa koy may sama bopp sama doole ji kon du ma neexal nit ku dul yàlla suñ borom ah, dina am kilifa nag am ku ma jiite topp ci ginnaawam ndax li may tut tut am na ñu ma doon seen kilifa kon li ma doonee kilifa am ñu nekkee sama kilifa wor ma nag daa baax surtout maa ku la mag wala ku la jiite waaye boo séexee nit ak ay mbir te moo moo ko yow kese da nga koo war di péncu te bañ koo paacoo lépp ñëpp la lu ne ko ne dañ cee war a def nekk ci mooy leer te ñu di ko dégg ñun war na guñu preuve mën naa koo wax. te dama koo gis. ñaata ñaata li jiite fédération bi. ah dimanche war naa mat un naa wala un an et quelque temps. un an quelque te war a gën a preuve non ah peut-être mu am preuve waaye jëm siwut ci man parce que damaa jiite ay ndaw ku ñu am ay naka su dul noonu ginnaaw yàlla maay dem taxaw. est-ce moom mos naa yow am nga carte mm, wala bu baax a baax. carte membre. non carte membre fédération amul ay bats la ñu yow liy bats yow yow sa gaaraas am na carte membre. bu baax. waaye yow yow sa carte am sa gaaraas am carte membre wala mu leer la man mii tey jii yor naa sa man xam nga bokk naa ci carte ci gaaraas am naa ñetti carte membre. waaw ah. léegi man ñu ni ma ana sa carte membre gars regroupement bi nga bokk ma wan la ko. ñu ni ma ana sa kart euh, membre fédération bi lu may wax. Hmm. yow lu mul carte yow léegi moom mënu ñëw firnde ni benn kii. ah astafurlah man naa am ay maam waaye man gisuma ko. xaw ma yow kon yow euh, Moodu Moodu. Moodu naa fi yàq baaxut yow garage bi yow regroupement fédération bi am ay carte yow nga jiitam garage amoo ca carte ya Ah, parce que yow bokkoo ya man de wax dëgg yàlla amu carte. <laughs> ay dama ni yéen mbokki auditeurs auditrices yéen ngi ànd ak ñun ci jotaayu émission jotaayu fii ci rajo Baol Média ci tableau caabi xàll bi jëm Touba ak Mbacké kuy animé di Modou Lay président regroupement chauffeur taxi banque islamique Areba Idika ànd ceeg sama consultant doyen sëriñ Xaadim Mbay Touba Mboussobé wala monsieur le Xaadim Mbay doon taksimaan lu gëm boppam taximaan boo xam ne soo xëyee këram këram la fa séenee del del mu mel ni Xaadim chauffeur daa mel ni bu xëyee këram rek damay dégg ñuy wax ne am na ñett ñoo xam ne mën naa am ci moom mooy bu tege tànkam bu tijjee porte oto bi tijji na buntu bàmmeelam tijji na buntu kaso tijji na buntu hôpital ñett yooyu yëpp nag bu gàddoo ci saw loos en tant que chauffeur ana nan nga war a comporter boobu ba ñaan yàlla mucc ji ak nan nga ci war a doxale ba tax nga mucc ji mbokk ci ligne bi bëgg ànd ak ñun ci émission bi bisimilah salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam. Mbacke Balla. ñu ngi ziar Modou Moustapha Diop ah, <laughs> ñu ngi lay ziar bu baax Gajaga. ñu ngi leen ah, la koy delloo. tey jéem ah, réseau bi la réseau bi moo manqué waaw. Oh, oh, réseau bi allo. boo déplacé woo tuuti rek réseau bi xaw a manqué. génn waaw di nuyuwaat bu baax rek kooku di sunu yaan Ndeye Gadiaga madame la présidente responsable politique APR Kambu Touba ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaar mu mel ni li ma waxoon léegi si xaarim question boobu mooy di ko jaajëfal doon jàmbaar lool wax dëgg yàlla taxawaayam rafet na am na solo si xaadim eh, question bu mooy tey boo xëyee tijji sa bun sa buntoodoo ne tijji na nga ñett bunt buntu hôpital buntu bàmmeel fu mel ni mooy dellusiwaat salaamaaleykum. maaleykum salaam. réseau bi xawoon na daw tuuti sunu yaay. ñu ngi lay ziar bu baax baax. bi daw maanaam euh, ñi nga ne ñoom nga toogal foofu. Uh-huh. ma ne bu yoon jeexul waax du jeex am na uh-huh. yaakaar ci ne bis na mës a ñëw ñu toog ndax. Uh-huh. dañoo wax ne xar xamul la ca déeg ba bu naat xamu ko. Uh, xar xamu ko bay xamu ko bu naata ko xam moom ma naan ba ca ban ba. Uh, alhamdulilah. <laughs> ñun ñii ñoom xaj naa mënuñoo seede ci yow. ngir mm. fu ñu toll waaye mën nañoo seede ci yow ngir xam guñ la xam. Mm. lépp loo am transport la ko gënal. Hmm. da koo jàng ci yar ak teggin. waaye yore ko teey akuk dal. di ko wommat ci am xel tey teete doomu aadama yi ci dëgg. Hmm. ak yar ak teggin. Hmm, kon yow lépp loo ci am jombu la. te xam nañ ne bis dana ma sa ñëw ñu toog foofu génn li nga xamante ne mooy mbóot mi ñu nëbb ci yow te bu naa ku ko dégg di di a téye ndax dañ xam ne dëgg rek a lépp loo wax ci man nag ci yow la ne man mënumaa sooy ci yow ndax jege naa la te xam naa li ci yow hmm. waaye maa ngi sant ñi nga fi toogal ñëpp di am kontaante ak ndax xam ne yar boo feeñal ci plateau bi rek hmm. bu ko raw moo nekk ci sa ginnaaw da nga fas yéene partage ak doomu aadama yi hmm, maa ngi jégalu samay kàddu na xam naa foofu ndax da ngaa xaw a cata woote lool. non am na solo yaay booy. kontaan nañ bu baax baax dëgg yàlla day. sant naa gërëm naata tey ñaan yàlla sunu boroom jàllale seen rajo boobu ba mu àgg foo xam ne dana kawe. amiin yaa rabbal aalamiin ñaanal leen ko rajo bi jëm ci kaw. te koy daw. Mm-hmm. di ko dox ci terrain bi. Mm-hmm. ci wàllum euh, transport. Mm-hmm. muslaay ji nga ci bëgg. ak liggéey bu set bu sell yàlla leen ko yàlla defal. amiin baax si ñu doon ci ngay dox te koo àndal ci nga koy woo. amiin baax si ñu jërëjëf yaa kontaan naa bu baax a baax ñoo la gën a kontaan la bu leen làq yéen ñëpp aar leen. Ah, amiin baax sëñ yeggale seen liggéey. tekk ci code laar bu sëñ Fall. amiin baax sëñ Tuubaa jërë jërëjëf. yàlla su nga ne tekk bu ne yàng nga ne yow jooju sëñ Fall wax. Hmm. yàlla defal teg te muslaay ak ñaanam yi yàlla na aar na lool te li a wax lépp xaju ci plateau bi. dëgg la de jërëjëf Gaye du ñàkk bis xam nga waxub sëwër waxub client du ñàkk ne bis dinañ fi mas a teew incha allah leeral lépp. waaw bu soobee yàlla bis dana mas a am tey. <laughs> jërëjëf yaa booy jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla na sa jàmm yàgg. maa ngi sant ci la fi nga fi toogal yëpp. am na solo waaw sa paap mi yóbbante ñaan a nuyoo. ak bu baax. voilà ñaanal ko yàgg te wér lool gajaga barke Sëñ Tuubaa. jërëjëf jërëjëf yàlla taxawaay bi yàgg barke Muhammad Rasulullah. amin amin amin sant naa ñëpp gërëm ñëpp rafet na yàlla ba mu gën a tawee lool amin waa di del si di gërëmaat bu baax sunu yaay jooju si sunu ga Gadiaga muy responsable boobu gëm boppam buy dimbaliwaate aw askanam koo xam ne wax dëgg yàlla lekkut bàyyi kenn tabu bu sañoon développement rek ci lay yëngu doon jàmbaar joo xam ne li ñuy wax jigéen ju mën góor teel a xëy guddee waaj jéego bu mu seqe rek luy dimbali mbootaayu jigéen ci lay taxaw mooy présidente de la CAM bu Touba. ñoo ngi koy nuyu di ko siyaar bu baax di ko nag si Xaadim comme li ma waxoon. mooy wax naa la ko maintes fois répété ko ndax auditeur bi taxoon mu dagg mooy damay faral di dégg ñu ne chauffeur saa bu xëyee tijji buntu otaam rek tijji na ñetti bunt muy buntu bàmmeel buntu kaso buntu hôpital ana nan la chauffeur bi wala comporté woo ba moytu loolu lépp. ak nan la ko war a jaayante ba ñaan yàlla dellusiwaat ci ak njabootam ci jàmm ak salaam te it bu bu ko fa séenee da koy jëfee ak nan la ko war a jëfe nan la war a comporté woo daal. waaw jërëjëf sëñ Modou laaj nga laaj ba am solo solo solo. Hmm. oto moom heure boo xëyee sa kër. Hmm. ba tijji sa buntu oto ba ni maa ngi xëy bala ngaa yéeg ci sa oto war ngaa mën a muslu ci seytaane yàlla aar la nga nga nga dem ci jàmm ñëwaat ci jàmm. Mm, mm. ak boole nag ak sab yar ak say teggin bu baax a baax. te maam surtout euh, te maam tamit li ngay dawal ci kaw télé bi. Mm. nga xam ko bu baax a baax xam ni yow responsable nga. te ay doomu aadama nga yeb ci oto bi. maam nga sirwaay li ngay dawal bu baax a baax a baax loolu tamit boo ko defee yàlla mën la cee musal ak sab oto tamit nga toppatoo ko ba nga xamante ni lu mel noonu tamit day sabab yooyu ndax sab oto bu fekkee ni frein yi normal la yooyu yu bëri mën na koo indi hmm. ngay toppatoo dépendance yi bu baax a baax a baax bu ko defee yàlla mën na lay musal saa boo xëyee ngay muslu hmm. waaw yàlla mën na lay dimbali ngay dem ci jàmm di ñëw ci jàmm hmm. jërëjëf jërëjëf si xaalis dafa am lu ma faral di dégg ñu koy wax lu ci ëpp nag la plupart yéen taximaane leen koy jiiñ mooy maye maye moom dafa bokk ci code de la route wala dafa bokk ci dawal wala lan mooy maye ak lu tax maye am ak nu ni maye dama gis ñuy ay oto yi ngeen di ko baraake di indi poussière di déranger nit ñi ñu yuuxaloo oto yi di wangentu daanaka sax oto yi day mel ni lu maam loolu mën a dawal la wala yëfi dof la wala yabaate la wala lan la loolu. waaw maye naa ko xam. maye moom bokk ci ko de la route. waaw man lu tax ngeen di ko def. ay caaxaan la yoo xamante ni kenn xamul lu mu doon ndaxte maanaam lu la mën la see fekk. Mhm, surtout yow mi koy def. neex na ci yow te ñu koy am na si ñoo xamante ni tamit neex na leen waaye yow ngaa war a xam ne oto bi nga yor moom tubaab bi bind ko ngir maye. waaw bind ko ngir may da koo bind ngir ngay dawal ko normal. Hmm. ki la ko jox sax ki la ko jox nag. ki la ko jox tamit bind jëndul la ko ngir. parce que ngir maye. Hmm. ki jënd oto ay millions. Hmm. jox la ko xam ne kooku bañu la. dëgg la laa bëgg. kon nag otom bu la ko joxee war nga koo sàmbal ba nga xamante ni. bu ngeen doon tàggoo sax ngeen tàggoo ci jàmm. waaw bu ko defee bu loolu jàllee sax man ngeen a dem ba seq lu lu raw loolu ay dente ay doom loolu lépp ci respect ba lay doon rek waaw. jërëjëf loolu leen na kon ñu ngay maye nga xam ne kon maye gi moom dana tax li xajamal derub sëfër loolu dana ci bokk. Mm-hmm. ndax jëmalul kër sambul kër yàq na alali jàmbur te ku ko gisit du la nawloo bu dee responsable nga. sëfër mm-hmm. daa war a sangu set sol lu set ba teq ku la fekk cib ku seen naw la warul laa sax xàmme ak client bi danaan ana client bi ana sëfër bi boo texee ci biir client yi. Mm-hmm. ndax sa comportement. waaye ku la gis yéene la sarax ñu naan ab sëfoor nga bokk ko ca ah, ab sëfoor nga wala ngay doon dawalkat te ñëpp dañ leen di boole sol ci benn butéel ma ne dañ di ay gone nan di wane un bon exemple njaboot gi topp ci ñun di ko gis na leen fexee noonu amee suñu yëfi bopp mooy jaar ci saraatal mustaqim ba ne bëgg yëfi jàmbur di dawale code de la ndax doom jëmmi doomu adama la moom code hmm. duñu teg soo ko respecté rek yàlla mën na lay musal te boo musal boo muccee mu muccalaale ki nga yeb wala nga muccalaale ñii ci kaw tali bi mu doon ñuy ay kilifa yoo xam ne seeni njaboot lañ bàyyi wala yow bi nga xam ne yaay dawal oto bi nga doon kilifa goo xam ne sax njaboot nga bàyyi. kon boo ko defee sa bopp bi di ko dawalaale sax borom mën na laa sàmm te aar la kon na ni gën a bennoo dañuy gën a booloo lu fédération yëpp nag surtout taxe bi Touba ndax yor naa transport en commun man. waaye nag fu mu toll nii tembe taxe laa séewul li ma waxoon léegi ne mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk nan benn bu nu kenn jaxase ñunu nee na ku xewle boo geesoo chauffeur ngay gis bu lépp chauffeur transporteur yi rarement lañ fay ñëw am na ñoo xam ne dañuy yóbbante kon bu nu kenn jaxase hmm. waxuma transporteur baaxut waxuma ko de koy déggee tax ma di ko wax dama ne bu kenn jaxase ñun chauffeur si chauffeur si laa wax chauffeur si ñun ay chauffeur lañ nañ bennoo te bañ ku ñu jaxase kilifa yi ñu jiite nag nan ñu jiitee nañ bennoo waaye bu nu bennoowul rek liñ bëgg duñ ko am ndax bu nu bennoo ko xam nga grève bii jàll rek la fois passé mooy cadre interroutier bi fi grève woon 14 ñu boole 14 syndicats booloo am na lu mu wane un bon exemple ba yeneen ni réew di leen roy ci booloo gi loola ñu demee ba bëgg koo yàq wala ñu koy jaxase ci suñu ginnaaw gi lay metti ngir lan intérêt personnel ku ci nekk naan maa man kii mënut kii am doole ki amul doole te doole ji yëpp kan la chauffeur si ñoo la koy jox suñu toogee téye seen bopp nekkuñ ci sa ginnaaw doo am doole benn lam ci loxo du yëngu ay lam moo yëngu bu ñu wutee ku ci nekk ka nga faral ka nga àndal nekk ci loxo benn benn la leen état di damat dalay yuutu damm sab loxo kii mu damm bi yelam kii mu ngàdd la ci bopp kon buñ ko nangu nan bennoo bennoo gi mu am njariñ maa ngi ci woo sëfoor sëpp man tàllal naa ñëpp loxo biir lan transport jëm ci kanam mu mel ne euh, doyen laay heure bi day bëgg jotaa ah, mën na noo tàggatoo nga xam ne ñu renvoyé ko ba beneen incha allah beneen bi ñu mooy dàq monsieur Laay waaw <coughs> tàggatoo bi day <coughs> dañ ciy jiital ñaan naan la suñu rakk joom la si nii samedi bii ñu génn ci la ci la ci la ci wàccoon di soxna Bintu Ka. waaw gis nga sama sama la ñoo bokk papa. an ko sama jigéen la. yàlla di nit ku baax di ñaan saa borom yërëm ko te xaare ko àjjana. te tout tànk yi mu fekk yi fi bàyyi saa borom dëgëral leen kàttanal leen. ci barke Cheikhul Khadim di am mbégte mu yaatu lool di nuyu la grand technicien technicien technicien yi jinne technicien yi di Cheikh Ibrahima Khalil moom nag yàlla daa dogal ni gën bàyyi laa koy woowee. li tax moo koy woowee gën baay yonent bee ko wax. sallallahu taala alayhi wa sallam. mooy xayrakum man taalama xuraan waa baloo te bàyyam daa bokk ci ñooñu. Hmm, ndax jàngal nañu. jàngalekat kon moom daanaka gën baay lañ koy woowee di nit ku yàlla baaxal. sama ngóor la. waaw nit ku yàlla baaxal. sama directeur la mais sama ngóor la. borom borom jumaay ji. Hmm. seexul xadim kàddu yi teggine na yaru na waaye am na pas-pas ak pëseef. Hmm. macha allah. yar gi lu koy firndeel mooy lu leen di gaaraas. ñu saytu ba xool ne képp ku ci saaga. yow mii la war a fay. yow moom jàpp lañu doo koy saaga. déedéet moog sëñ Cheikh naa Mbaye mi waajurum wàcc tey. Mhm. kon ko saytu kon moom ñu ngi koy ñaanal saa borom kàttanal ko. amiin ba ko dara jaal ko ba lépp lu mu lu mu bëgg rek moomee ko noonu. amiin ba waaye yow it di la nuyu di la siyaare. di wax ne tey moom. <laughs> damay bañ a wax sax <laughs> damay bañ a wax sax jërëjëf. bisimilah sëñ Xaadim looy tàggatoo mbokki auditeurs auditrices. waaw maa ngi ziar ñëpp di di baalu àq ñëpp di ziar képp koo xamante ni doon nga déglu émission bi muy émission bu am solo di ziar euh, waa Mbusoobe gépp di ziar sama yaay yaay Caama Ñang di ñaanal sama papa mi nga xamante ni mu nga ca yowmal xayaam suñu borom yokk ak leerab ci barke borom Touba maa ngi ziar sama gaay yi nga xamante ni ñoom naa nekkal ca banque islam. nga xamante ni ndeysaan dañ maa bëgg ba nga xamante ni su ma xëy suuf sax dañ may woo téléphone. ngir ak bëgg gun ma bëgg di leen ziar bu ma limee rek damay jum. Mm-hmm. Eh, di ziar suñu aaleeg ay ñoom suñu mbàkkee Seex Diop. Mm-hmm. suñu mbay rij maa ngi koy ziar bu mm-hmm. di ziar gaa yëpp su ma limee rek damay jum ak suñu aadama kan ak. am na solo ay Serigne Seye Ndiaye yëpp maa leen ziar. jërëjëf seen émission jotaayu sëfër fii ci Baol Média rajo bi nekk diwaanu Baol tableau caabi xale yu jëm Touba ak Mbacké ki leen ko doon présenté di moo di lay président regroupement chauffeur taxi banque islamique yi nekk euh, Arebaye Idika di dellu si di gërëmaat bu baax sama waa garage ci seen mobilisation ci seen bennoo ci seen croise di leen ñaanal jàmm ak tawfeex ne fa wax leen na leen fi ngeen jàpp foofu rek la mooy bennoo doon benn yëkkateendoo tegandoo yàlla na seen jàmm yàgg sama waa garage ndax bëgguma lim kenn di bàyyi kenn ñëpp rek ki topp ci man ba ca ka ca mujj ñëpp kenn di gërëmaat waa ahlu transport yépp yàlla na doon benn ay waaye yàlla nañ doon benn ci barke Muhammad rasulillah mooy sunu arrangement mooy sunu njariñ di ñaanalaat sunu kilifa gi góor gi national président regroupement Sénégal képp di bàyyi idika yàlla sa borom sàmm ko aar ko yàggal ko fi di gërëm sunu yaa ndey Gajaga bu baax a baax di ko ñaanal jàmmam ak tawféex ki bëgg njariñal ñëpp yàlla na jàmmam yàgg ak góoram nga di sunu bàyyi baara Gajaga ak ahlu transport wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala bu jubee ci yàlla la bu amee dëngite nan ko jéggal xam ne matadik doomu aadama la jërë ngeen jëf ba beneen àll ba incha allah